asalaamualeykum waa Sénégal ñu ngi nuyoo di ziar di baalu ak ñëpp tey baal ak ñëpp di nuyu waa diaspora bi nga xam ni dañuy bëggee ngonal li ma daan wax rek démb ak barki démb laay dellu di wax ngonal yéen ay borom yéen ko moom yéen a ko bëgg dugal ko seen biir xol loolu moo waral depuis 2013 ba léegi ñu koy def fas yéene nañu nag désormais dootul amati rediffusion chaque mercredi incha allahu rabbi dañ koy def pour bégal leen Sénégal jërë ngeen jëf encore une fois peccum liir balaa neex nday jaatee ci mbagg ya yéen a ñu dooleel yéen a jàppale yéen a ñu gëm ñun amuñu seen fay xale yu nga xam ni sax barki démb la ñu judd amaguñu un sax boo rombee dañ lay félicité di la nuyu di la ñaanal ay xale yu ndaw loolu rek jar naa sante suñu borom kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu àq bu baax a baax a baax di nuy sama gaay yi alaaji saa sama ndeyjoor comme ni mu ko daan defee ah alaaji alaaji moom it sama ndeyjoor professeur nekkee ni sama càmmooñ professeur du ñun de Sénégal ñoo lay réclamer munoo ci dara da ngay ñëw sa job bariwul waaye da ñëw ndax Sénégal ñoo ne na ngay ñëw barki dem rek la ma njaga dul wax ne ma yéen soxlatu leen keneen soxla tu keneen kon ça veut dire que ne il est content te il est le directeur de la télé kon félicitation saa nga ni li nga sant sa rafet na jëf di la nuyu waaw damaa bëggoon wax sa sanse bi tuut mais garaaw di nuyu euh, professeur boo bàyyi ma décorti ko sanse bi noo garaawul waaw ah. sanse bi moom yow après bu ñuy bu ñuy tëj rek jaa jëf waay alaaji maa ngi lay nuyu bu baax alaaji alaaji di nuyu waa Sénégal di leen euh, siyaar bu baax di leen ñaanal yàlla jàmm ak fu secteur bu waay mën a ne ak foo mën ne hmm. maa ngi lay ñaanal jàmm ak wér amiin yaa di nuyu njaboot gi yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi suñu xalif yi nga xam ne ñoo ne ci xalif yi suñu Abdou te kurusi di ñaan ngir Sénégal stable ngir Sénégal am jàmm mhm. sëñ Abdou Karim Mbacke sunu xarit maa ngi lay nuyu borom makaalimel axlaa di la ñaanal wér nga yàgg fi lool Mbacke te wér amiin yaa rabbi sëñ Fallou Rahman maa ngi lay nuyu yàgg sa soxna Bousso borom géeja waay sama xarit boobu mooy borom waaw mooy borom kun nag léegi kan mooy sëriñu sëñ Fallou Rahman euh, kooku moo nekk Touba waaw kooku mooy sëñ sëñ sëñ xaw ma lan Karim danaa koy wax kooku doomu sëñ Njóogu Mbacke la ah mu sëñ Njóogu Mbacke sëñ Njóogu Mbacke doomu sëñ Touba la waaw kooku moom mooy sëriñ Abdourahmane Mbacke sëriñ Abdourahmane Mbacke mooy moom sëñ Njoogu Mbacke mu sëñ Njoogu Mbacke mu sëriñ Touba mooy sëriñu sëñ Fallou mooy sëriñu sëñ Fallou Rahmane leer na sëñ Abdourahmane Mbacke daaray Kaamir la ne moo nekk ca daaray Kaamir ba ca Touba Kaamir kese waaw daaray maa ngi nuyu waa Touba yëpp nag du nuyu waa daaray Kaamir yëpp rawatina waa kër sëñ Fallou Mbacke yi mm-hmm. waaw ba ma fa demee wax dëgg yàlla ay ay ay góor yu mag bëgg ñëw di leen laajte ndeysaan ndeysaan moom laa gis Euh, boo leen tàllalee sa loxo di leen ñaanal fii lañ lay jàpp sa sikkim wala sa nopp. ah wallaahi. ndeysaan. naan la ah. naan la nii na gën a neex. aywa day gën a neex rek ñu fontoo de na neex de. day gën a neex daal di ree ndeysaan. waaw ñoom dañ lay ñaan waajur bel nag. de emploi waaw waaw directeur de maa ngi koy nuyu Pape Modou Fall. comme d' sa xarit la waaw sama waay la. moom mooy directeur de l'emploi di def liggéey bu baax moom mooy moom borom kër borom surtout borom jën ak la gën. waaw soxna May. soxna May nag jot naa ko tey. Ah. waaw mu leen di May jenn ah. surtout Cheikh Issa Dieng la borom. Dieng loolu laa ko rusee de. ah loolu laa ko ah. borom Dieng la gën laa ko rusee de. pourtant nag soxna May bi ma woowee tey. ah lu mu la wax ñu ma Zozo. dafa ni ma kilifa gi yoo xam ne yoo nekk yëfi parrainage yi. waaw waaw waaw waaw da jàpp mu nekk mu nekk Jurbel. Ah. mais dina ñëw ci ngonal lii. incha allahu rabbi. waaw Ibra Kebe borom oto. waaw salaam oto Ibra Kebe. woo na ko ci sama kanam. waaw mi ngi préparé ngonal li. pour Sénégal dañ ko soxla sax moom. non dina ñëw dafa war a ñëw. dina ñëw war a ñëw. waaw waaw. dina ñëw dina ñëw bu baax a baax a baax a baax. incha allahu rabbi. Euh, xam nga xam nga xam nga kii euh, nu mu tudd kooku sama xel mi après dina ci dem. Ah, da nga wax bisimilah rahmaani rahim. kilifa gu bisimilah rahmaani rahim kilifa gu am doole la. sama xel après dina. na alaaji ñëw en attendant na ñëw. waaw en attendant nga dafa bëgg a ñëw fii ci ngonal li waaw waxoon na ni tey jii dina ñëw nuyu si ñu. waaw saafonte ak ñun ñëw toog fii ci ngonal ndax kooku dafa yëf yëfi boppam ubbi ko employé fi mu toll nii. cent jeunes direct la embauché. embauché loolu la Sénégal soxla cent jeunes la embauché daf ma woo ba bureau wan ma li muy liggéey. yooyu la Sénégal soxla. xalaataalal tur bi en attendant alaaji nuyoo alaaji alaaji nga ni waaw day wax bismillah rahmaani rahim rek léegi waaw dina ñëw dina ñëw si plateau bi di rafetlu teewaayu professeur cub di nuyu nag waa adduna di nuyu waa Sénégal moom laa jox Messi di wax futum na di wax euh, mi de salmina mon ah di wax euh, buenas noches waaw di nuyu nag sa ay euh, noches du waa Sénégal de Espagne alaaji ñëpp Ah, waaw ah, waaw waaw d' accord d' accord waaw. waaw jërëjëf dëgg la waaw di nuyu nag euh, sama mbokk policiers yi. waaw homme de loi yi homme de tenue yi. <laughs> maa ngi leen di nuyu. di profité nag di nuyu emblème tey monument. Hmm. muy Babou Sène. ndeysaan Babou Seen. Babou Seen ak mënoon a ramasse Babou Seen Babou Seen ma nga fa. ramasse rek la mënoon a def. ku xam Babou Seen. ah <laughs> mu liggéeyal biir police. ramasse keroog nee na ma alaaji ma ne ko mu ne ma du ma tardé ngoonal. dëgg la dama lay yóbbante Babou Seen nee ko. waaw Jojo nee na ramasse rek nga mënoon. waaw yaa ngi dugg ah da lay jàpp de. la ma mënatumaa jàpp de. baabu seen retraité na tey la a tey la gën baabu seen retraité na tey la a tey la baabu seen tey la gën a am tey la gën a am doole biir police su ma fa jógee waaw ñëwal soo fa jógee yow maa ngi nuyu maire Bambi yaayu Ndey Kumba Madre waaw ndeysaan maire Bambi maire Bambi du tardé ngoonal ndeysaan maire Bambi bu ma fa jógee waaw ma nuyu commandant ma commandant Fall bu Thiès nuyu waaleel ma lëz moo war a ànd ak sunu gan gi ñëw fii. waaw Leuz Média ñu ngi lay nuyu. waaw Leuz Média wax na Ngonal dafa yaatu. xanaa xamoo Leuz moo sanc Ngonal. waaw moo ko njëkk a def première émission waaw bi wax rek ne suñu combat bi. Mhm. waaw. ñëw na. moom mooy mooy mooy booy. booy jaxaaw mhm. Ngonal pour wane doole Ngonal. waaw booy jaxaaw nee na mi ngi jot ay retour ana ana ana suñu affaire bi. Ah, tey nag dinaa am tey am ñu ma tudd. loolu après nga koy wane mu gën a leer. Oh, waaw waaw da koy wane nii rek mais après lañ ciy dem ciy xuus. Habib ñaa waaw Thiès la nekk jàppale na ko jàppale na ko waaw Bafu Meng waaw Bafu Meng Bafu waaw jàppale na ko waaw ak euh, buur yàlla ñoo ngi lay ñaan ki nekk kii te nekk tënge turam dina ñëw moom tamit te xam naa du si fàtte ah, tënge <laughs> yooyu waxal bismillah rahmaan rahim antaan naa professeur du yow nga ñëwaat kiiwam dina ñëw waaw waaw ñoo moom lii ñoo moom ñu may abaa loo ñu koy xañee nii abaa xëccal ñu booy jaxaaw jël ndam lii waaw samedi suñu combat waaw ka muy bëreel nag suñu <laughs> tamit bëral nag duñ ko tudd parce que. waaw daa am nu mu demee kii lay bëre Youssou Ndour. ay ah Youssou Ndour. non non waxuma Youssou Ndour suñu directeur. waaw waaye waaye nag waaw waaye tur xam nga tur daa fort. waaw nag ki muy bëreel suñu patron la. waaw allez yow xalaatal waxal bisimilah rahmaan nga xalaatale tur boobu. waaw professeur nuyool. waaw barakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara jo. sa neex ñu ngi koy nuyu di leen bëggee xelaaj ñu ngi leen di bëggee bu baax ñu ngi amaat mbégte vraiment di leen rencontré waat ci jotaay bi di nuyu téléspectateurs yi suivre émission bi yëpp également di nuyu Sénégal di nuyu kilifa yi. kilifa yi diine yi kilifa yi aada yi n'est-ce pas. di nuyu kilifa yi télé bi aussi également. vraiment Ndiaga ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. ak rakkam ak i magam yëpp. Mm-hmm. ak i bàjjanam ak i baayam. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Sénégal yëpp di leen ñaanal jàmm taw feex ak xéwal. waaw waaye eh, saa waay da tey. waaw maa ngi teg caayin man ki ma la doon wax noonu. maa teg atum ah, bi ñëw na Seeku Seeku Dia Seeku Dia on ko Haalpulaar. pire. il est effacé du génn ci média bi. non le fait que mu employé sans jeune na ma damay dajeeg Jojo mii di ko gis damay gis Cheikhouna ma ne ko yow yàgg naa laa gis mu ni ma man man noonu laa mel. waa Guinée Équateur. moo moo leen représenté fii. ci réew mi wallaahi. ndeysaan ba pare employé sans jeune. sans embauché. loolu dama ne ñoo kooku. ak ak Youssou Ndour ak ñoom ay Ndiaga Ndour ñii waaw bu bu ñëpp Sénégal yi ñu am ñu yàlla sutura dañoo dara jàppale booy duñ dugg ci gaal yi dem dëgg la billaay ki ma la doon ah? Ablaye Sylla ah Ablaye bismillah baax na baax na kay eh, Ndiaye fa xam-xam fay avril laa judd de mi ngi jàppale booy Jaxaw Ndiaye. Euh, Ablaye la waaw Ablaye la waaw di jënd ci biey. di di ñëw ñëw. ndeysaan di ñëw ñëw. ñëw ñëw ñëw nag di nga dégg sa tur fii. ndeysaan ku ñëwul nag xamuñu si yow dara. xam nga Sénégal lii mënuñoo ñàkk mënu cee ñàkk. déedéet mënu ñàkk sax ñu nuyoo. waaw ñii ñu nuyu ñii. waaw cee ñàkk. ndax nag euh, nit bëggul bu defee nga ne ko waaw góor. waaw ñun nag ku deful dañuy wax ne deful. waaw ñun loolu la ñu yàlla bindee. te ñii nii ñëpp ñuy gërëm di leen nuyu. Mm. du lii de kóllëre la ñun toppewuñ doomu ah, eh, aadama ndax dërëm waaw waaw nay leer nay leer nag kóllëre senegal que Sénégal tàmm bu ñu déggee nit nga koy tudd waaw ñu ni dañ leen a jox dara ci suuf moo tax ma ibbi la bunt boobu waaw ñun ay nit ñu am kóllëre lañu rek mm-hmm. wayaanuñu déedéet déedéet ak géwél buy wayaan amu fi déedéet joxuñu ñu sax mais Cheikh géwél yu diñ yaa ngi fi est xam nga am na géwél yoo xam ne xamuñu wayaan xamuñu tëgg sax waaw mais euh, mais mais mais seen kii la laa bëgg a wax loolu géwél bu ko defee du dara ci moom géer nag bu ko defee di wayaan tere nañ ko ko tere nañ ko ko waaw kay loolu foofu laa wax loolu moom ñun moom kon professeur rek uh-huh. waaw Sénégal ñoo la laajaat waaw te bii di ñëwaat Sénégal da lay laajaat ba nga ne sonn nga boo waa dañu naan dañ naan professeur yow yow yaa bañ yow yaa bañ a ñëw waaw gerte gi waaw bu fekkente ne na liggéey bii ñuy liggéey ñun. waaw dafa nekk en rapport direct ak doomu aadama. waaw nekk en rapport direct avec la population sénégalaise. waaw li leen di yee. waaw li leen di bégal. Mhm. li leen di génne. Mhm. professeur heure bu ñu la soxlaa ñun ñu woo la. Mhm. te it wan nga ñu nit ne loo jàpp da nga koy bàyyi ñoom. mais ginnaaw émission yi gars yi dama leen koy ñaan. parfois dañuy dem ba ci fin bi muy doog a neex. waaw bu dee mën nañoo ñàkk def cinq minutes wala ñu def ko une minute dongonal wala ñu dugg directement parce que thème bi tey sa thème la Ndiaye dooma dooma dimbali une minute dongonal ngumba ngumba ngumba ngumba taay ngumba loolu ñun mhm. moom a indi Dakar yaa ngi tudd lu garaaw waaw ngumba am na taxi yaa ngi ah? am na taxi boppam am na taxi wala naka parce que ngumba ba muy taxi bi léegi di nga alaaj peut-être avant dugg ci thème bi il wax ci loolu mm. ngumba ah. ci yoon war naa am ñeent ba juróomi taxi tey mm-hmm. taximaan yi. Mhm. nañu xam ni. Mhm. mënuñu di vivre éternellement ci ñu leen di fay tous les mois. Mhm. nit loo koy liggéey. même bu fekk ne ne da ngay épargner mille francs par jour. defe naa ne en deux ans di nga mën a jënd sa taxi boobu. bu ko waxatee de. Uh-huh. waaw ah. ñëwal foofu nga ni lu tax mu tane nit day jënd taxi waaw. jëndee ko 4 millions bëgg ci 12 millions. teg la lu la yàlla tegul ci àddina di law laaj versement trente mille wala trente cinq mille ndakaaru gu xat gi wala Thiès gu xat gi boo demee fee balaa ngaa dellu si mu mu ngoon yaay sol essence <coughs> yaay di dépanner di dagg assurance ah mu mu euh, lu mu lay jox cinquante mille francs par mois waaw loo ci mën a épargner njool di këru cent soixante quinze mille wala këru cent mille francs tabaski korite jàngu xale yi. ma xañ sama bopp dërëm tey am junni suba. nga ni loolu laa la bëgg a wax. Ah. xañ sama bopp dërëm tey am junni suba. waaw bu ma wàccee. Hmm. dinaa jël 1000 francs denc fàtte ko fa ñaari at. Eh. am sama taksi bopp. peut-être loolu war naa mën a nekk wala. yow francs ñaari at xam nga ñaata la. Hmm. saa yi boo déposé ñaari at mu lebal la. non 1000 francs ñaari at xam nga ñaata banque boo dugal 1000 francs 2 mu jox la xaalis. mais lii day dox 5000 ngoone ji noonu. waaw eh. non non 5000 ngoone amul. 2 ans du 48 mois. Ah. 48 mois. waaw 1000 francs par jour. waaw. 44 mois waaw. la calcul. 2 ans et 44 mois la. 2 ans et 44 mois. waaw non mois. waaw loolu pour encourager rek ñu mën a di dajale. di am seen mbiru bopp. waaw voilà. bu ma ah. wut leen seen tax bopp tey nag sa thème la. waaw professeur. muy thème bu nga xam ni. Hmm. <coughs> doy na waar. monsieur bi ñëw na de. ah <laughs> monsieur bi ñëw na. Mm-hmm. préparé leen ko. Mm-hmm. yéene fi ne. alaalaaji joxal ma carte gi. professeur. Mm-hmm. thème bi ñu choisir tey. daa concerné bépp doomu aadama. waaw muy rêve. gént. muy gént. li ma ci indi ci question de man gars yi xanaat ba message ba moo passé. bi kon alaaji jiitul. déedéet sa euh, Sambay ubbi. waaw non léegi balaa Samba di ubbi question bi kon. ma laaj ko professeur lan mooy rêve. Hmm, macha allah. après ñu dugg. soxal jox ma. jo gént waaw mooy forme de communication bi nga xam ni moom la yàlla di def ak jaam yaa ngi mboonal forme de communication bi yàlla di defal jaam ak jaamam yëpp waaw nit ñëpp ay yonent lañu ay ay yonent lañ nit hmm. ñëpp ay yonent lañ ay yonent waaw ay yonent lañ ndax kenn ku ci nekk yàlla dana wax ak yow hmm. dana wax ak yow ci gént hmm. parce que gént keneen waxut ak yow ku dul yàlla kon yàlla wax ak yow ci gént dana la tegtal ci gént dana la digal. Mhm. ci gént dana la tere kon yàlla dalaa yónni. daa gént avertissement la. avertissement la. Mhm. Mhm. gént mooy forme communication bi gën a universelle bi nga xam ni. ñi nekk ci kaw suuf di fi dund ak nga nekk ca barzaq ci la ñuy waxee. ci gént lañuy ñuy ah. ah bien ndax ki nekk ci barzaq buy wax yow dara da nga koy gént gis ko mu def lii def lii def lii nga leen ci firikatu gént ni ko man kat sama baay jur dafa génn àddina damaa gént mu jox ma xaalis wala ma jox ko xaalis. ñun la ah loolu mooy ñaan yi nga koy ñaanal mu ngi ciy bég dama ko gis mu mel nii mu rafet lool mooy fa mu nekk ma nga ca contentement nekkul du dikk ni la ñaan yi nga may ñaanal bég naa ci mhm. mais da ngay gis mën na dikk nga nga koy jox xaalis yow mhm. parce que xaalis boo ko dee jox nit li ci ëpp rek ay kaddu la yu jëm ci moom mhm. wala ay ñaan yu jëm ci moom wala xaalis bu jëm ci moom ndax xaalis kaddu la donc communication la ñoom ñu nekk ca barzaq buñ la bëggee wax dara ci sa àddina bi ngay dund ci lañ la koy waxee mais ñoom dañuy utiliser benn métaphore benn abstrait mhm. parce que gént abstrait la mhm. c' est des métaphores mhm. maanaam ay image la yuy exprimer ay fait fait dafay mel ni écriture boo xam parce que ay figure la mooy écriture bi njëkk bi nga xam ne moom la Idriss doon bind Idriss bind bi Idriss créé woon nekkuloon ay symbole yu représenté ay son par exemple yonent yàlla Idriss moo njëkk a bind ci kaw suuf moo créé l'écriture waaw bu ko hiéroglyphe boo ko xoolee. kon yonent yàlla Idriss Idriss. moo créé lan. bind. ah moo créé bind ci kaw suuf. lu ah, jiitu ah d'accord ok. Adama ba Idriss daawuñu bind xamuñu luy bind. Mhm. Mhm. da ngay wax rek ñu dégg xam jàpp. jeex na mais kenn xamul bind. Mhm. mais Idriss moo njëkk bind. mais bi Idriss bind bi mu daan bind ay dessin la woon. ay dessin donc ay image lay image yi maanaam mu dessiné benn garab dessiné ay xar ci suuf dessiné benn waaye bu ñëw ñaari xar dem ñett toog. mais loolu wax la woon. wax la nga ñëw traduire ko daal ne ah waa ji kat nee na juróomi xar yi ma am fële nañ fi garder ñett yi delloo si ko ñaar yi maanaam ci image yi nga koy xamee. Hmm. donc donc c' est des symboles c' est des c' est, c' est des figures. xanaa esteno foofu parce que source su écriture yëpp fa la cosaanoo mooy livre d' Enoch di nga dégg Enoch mooy Idriss. Hmm. mais écriture bi ñëw après mooy li nga xam ne ay ay symbole la yuy représenté ay son par exemple booy bindi A da bindi A benn flèche nii taf mu nekk A. tout simplement. R nga def benn bin mu nekk R wala ba nga def def rëdd tomb mu nekk ba donc c' de des symboles qui représentent des son son yooyu nag moom ngay dajale après mu nekk benn moo donc mot yooyu tamit c' est c' est c' ay ay ay illusion la rek. parce que ñun ñoo convention la ñuy d' accord. ñu tuddee lii taabal. mais en réalité lii tuddul taabal ñun ñoo ko tuddee taabal turam dëgg-dëgg xamuñu ko lan la. ñun ñoo ko tuddee rek taabal que ça veut dire taabal. taabal ça ne veut ñu benn mot rek. teng tudde ko taabal c'est juste donc son donc yu ñu créer tudde ko ay mbir loolu mooy wax moo tax forme de communication bu limité la bu terre à la mooy bi nga xam ne moom utiliser mooy wax mais forme de communication bi am ci gént moo gën a universel moo gën a yaatu moo gën a mën a exprimer lu bare bare mhm. barzaq malaaka ya fa nekk rawxaan ya fa nekk di wax ak aji dund ji nga xam ne moo nekk ci kaw suuf ci biiri gént ñoom fa ñuy utiliser ba ñu nekk la parole existé wu fa maanaam ñoom du ñu waxe ay baat maanaam malaaka yi bu ñuy wax ci seen biir nekkul dañuy wax waaw sawaay nangam nangam di làkk pël wala ñuy làkk wolof wala ñuy làkk séeréer mhm. donc duñu utiliser la parole pour communiquer mais dañuy utiliser ay lumière ay rayonnement ay frottement frottement yooyu nag bu dee dañoo bëgg a wax ki nekk ci kaw suuf nga xam dafay utiliser la parole ñoom dañuy utiliser donc symbole yi nekk ci kaw suuf si jël ci ay image def jox ko benn message loolu information boobu ngay jot moom ngay jot ci gént moo tax li ngay gént ak li muy firi duñu niroo par nit ki da ngay gént war fas di ko dawal nga dem ci frikatu gént mi ni ko man kat damaa gént war fas wu mel ni di ko dawal di ko dawal mun la ah yow de boo deful ndànk di nga am soxna soo xam ni ku baax lay doon nangam nangam mhm. mais pourquoi néewuñu la rek géntuñu la rek mais utiliser fas parce que métaphore fas ak bu jabar dañoo xaw a yem tuuti maanaam fas mhm. bokkoon na si samay question loolu mhm. waaw waaw demal doxala waaw fas dafa nekk loo xam ni daf lay dimbali ci sa dund ci kaw suuf daf lay yanul say bagaas daf lay yóbbu fu sori. daf lay ëmbal sa sutura daf lay mm-hmm. taxawu sa jabar tamit mm-hmm. boo seetloo noonu la mel ci yow. Mm-hmm. daf lay taxawu. daf lay uufal sa njaboot daf lay toggal sa yaay daf lay fuutal sa yére. moo tax donc métaphore bi ñuy utiliser pour exprimer soxna. dana nekk fas. mais du rek loolu lay représente toujours fas dana nekk lu bëree bëri. fas dana nekk kilifa. fas dana nekk mara fas dana nekk rawxaan. fas dana nekk lu bëree bëri si gént. loo xamante ni si mën ko ça dépend fas bu xonq fas bu weex fas bu ñuul fas bu am teg fas bu amul teg fas booy wommat fas bu lay wommat fas boo yéeg ci kawam benn bokk ci sa morom li muy firi mhm. donc gént dafa complexe mhm. dafa vaste mhm. te langage bi muy exprimer woo ñooñu nga xam ne foofu lañ nekk ca barzaq donc ñoom symbole yooyu dañuy jël pour wax ak ki nga xam ne moo nekk ci kaw suuf moo tax yàlla ni man jaa du wax ak man jaaduwul ci man yàlla may wax ak aji dee lu dul ci ñetti bunt yi ah. ma wax yu ko wala ma wax yu ko ma jaaduwul ci man yàlla mhm. may wax ak aji dee ñetti bunt ñu ni ko dama koy wax dama koy wax yu waxlu wala ma wax ci ginnaaw kiiraay mhm. wala ma yebal ci moom ndaw mhm. maa kaana li basharin an yukallimahu llahu ila waxyan aw min wara hijabin aw yursila rasul donc jaaduwul ci man yàlla may wax ak aji dee lu dul ci ñetti bunt ñu ko yan ko dama koy wax yu wax yu mooy inspiration waaw kay loolu laa doon taf sentir benn affaire les plus grands scientifiques les plus grands savants seen connaissance li ci ëpp ñu ko jëli ci inspiration takk lay doon benn déclic wala mu ñëw ci rêve mhm. aw min war a xijaabin ñun moom la ñu wax ni mooy gént maanaam ci ginnaaw kiiraay loolu la wax quoi wala ci ginnaaw kiiraay ça veut dire les rêves aw yursila rasul wala ma yónni ci moom ndaw mooy malaaka dikk ni la yàlla neena na wala nit dikk ni la dafa sawaay te ngaa def nangam ndax nit dana dikk wax la fekk ndawal yàlla te moom du ko yëg mhm. yàlla xirtal la rek nga jékki-jékki dikk ni waa ça est-ce que doo def nangam nangam fekk na boobu moom mi xelam mi ngi nekkoon ci pour mu ni see sa waay li nga ma wax nii dafa mel ni man fan yi sax sama xel bi dafa nekkoon ci nagam fekk na boobu ku yàlla yabal la ku yàlla yabal ci yow la koo xam mu jekk moom sax bu la ko waxee bare man ko laaj lu tax ko ah, ko waaw de dama yaakaar ne loolu baax na rek loolu la lay mën a wax parce que ndaw lu yàlla yabal la donc foofu yëpp ay forme communication la yoo xam dina am donc rêve li mu doon communication la forme de communication la ñu nekk ci suuf ak ñu nekk ci kaw waaw mais lu tax nit ñi fili gént Sénégal waaw ah. seen fili gént buñ la koy filil du méngoo toujours seen wax yi du menacé kii da lay wax lii fii nga dem ci mu wax la fii ku lem fa lu ñu wax la ne la ayuñu toujours dafay am ay ay ay ah, baax ah. na baax na 99 pour cent ci ñi frigante waaw à vrai dire mënuñu hmm. ko firi 99 hmm. pour cent ici au Sénégal ñi frigante yëpp mënuñu ko firi ok téere la ñuy firee gént téere Ibnu Sirin Ibnu hmm. Sirin mooy ki bind téere firi gént bi ñuy firee gént Ibnu Sirin mi ngi juddu en 600 600 si je me trompe pas mi ngi dund en 635. Euh, hmm. génn àddina c'est-à-dire moom mook euh, ginnaaw yonent bi. waaw wala nga ni Youssouf. Hmm. yonent yàlla Youssouf yonent hmm. yàlla Youssouf attention. yonent bi moo gën a dàq firi gént dañoo ñu bari dañoo foog yonent yàlla Youssouf moo dàq firi gént si àddina bi. ndax histoire am mu doon firi ay gént ak yooyu. te Seydina Mouhamed sallallahu moo dàq firi gént ñëpp. ci àddina ci àddina yonent bi da daan firi gént yëpp. Ah. bi fa jógee nag Ibnu Sirin moo nekk waa joo xam ni kenn musul mel ni moom ci firi gént moo bind téere firi gént bu mag boobu ñu tuddee taabiru ruya moom yeneen téere gént yi nga gis yëpp ci téere boobu la juddoo mooy taabiru ruya moom ab jaam la woon ibnu Walid moo ko jàpp moo jàppoon ay way juram Xaalid ibnu Walid moo jàppoon ay way juram ci benn xare ca Irak mm-hmm. ñu nekk ay jaam mu jaayoon leen Abubakar Sadiq Aboubacar Sadiq yor leen ñoom ñu dugg ci lislaam baax lool ñu mujj goreel leen way juróom wu jigéen mu ngi tuddoon Safiyatu bi mu génnee àddina treize personnes ci ahlul badar ànd nañ ci robam pour nga xam ni kon respecté woon ko ndax baax gu mu baaxoon am na suñuy wax ni sax yaay moo tax ñu koy woy ibnu sirin sirin mooy comme serin ci lang langue yu jëkk ya mm-hmm. ci langue chami chamitique yi Serine veut dire serein. ku am sakki na ku posé ku lewet ku dal ndax su soxna si dafa meloon noonu. moo tax ñu koy wax lu am ñu ne noonu la ñu ne noo bàyyi moo tuddoon Serine moo tax ñu koy ibnu Serine. Hmm. moom moomu moo bind téere firi gént boobu ñuy wax taabi rooro iya ñiy firi gént ci téere boobu la ñuy sukkandikoo. Hmm. téere bi jàngalewul ni ñuy firi gént dafa firi ay gént. Hmm. amul ku jàngale firi gént ci àddina. ah téere bi dafa firi ay gént. dafa firi ay gént école bu ñuy jàngale firi gént amul. mosoo dégg sëriñ buy jàngale firi gént amul. ñiy firi gént dañuy jëm jël téere ibnu sirin téere ibnu sirin boobu nag ibnu sirin daf ci firi ay gént maanaam dafa ñëw bind boo géntee daal nangam lay firi kon firi gént daal du du métier boo géntee fas du lu ñuy jàng quoi wax mais ci téere bi ngay référé wu yàlla moo la koy xamal mhm. firi gént mhm. yàlla moo la koy déggalu d'accord vas-y dafay mel ni langage yu ki dégg làkku muuma mhm. ak ki déggul làkku muuma yow mi dégg làkku muuma yow muuma bi wax ak yow day ñëw rek def ay geste waaw def ay mouvement daf ni nga ne ma nee na nangam nangam nangam nangam pourtant moom waxul pël yow nga firil ma ci mhm. mais ay geste la def géntam dafa mel ni ay image la yow nga firil ma ko mhm. donc il faut donc nga dégg métaphore boobu il faut nga mhm. comprendre langage boobu nga xam ne moom la gént di waxee pour mën ko firi loolu nag yàlla moo la donc nekkul loo xam ne da ngay dem jàngal la ko mais yàlla moo la koy inspiré mm-hmm. nga dégg langage boobu mën a firi gént xam ko mm-hmm. firi gént ci yëg-yëg lay tukkee du tukkee ci xel du tukkee ci mm-hmm. intelligence Ibnu Sirin nag téeréem boobu mu bind firi na ci gént yu baree bare maanaam bind na dàll ni lay firi fas lii lay firi picc lii lay firi avion li astafurla euh, euh, xaj li lay firi xaj li lay firi nit nangam nangam nangam nangam waaye léegi nag bu ñu ñëw ba ci jamono bii ñiy firi gént dafa am gént yu bare yu amul ci téere ba xam nga téere ba dèjà mënut a wax lépp léegi nag tamit bu waxul lépp it yi xew léegi te ji avion amu ca oto amu ca téléphone amu ca télé télé montre amu ca ordinateur amu ca li ba matériel yi am yëpp tey amul ci firi je yooyu amul mm-hmm. léegi nag bu bi nga dem bi gisoo ci avion gisoo ci oto nooy def si sa yëg-yëg rek ngay créé léegi dangay ngay da ngay dandale da ngay teen dendale mm-hmm. da nga naan waaw mun la damaa gént daal war benn oto di ko dawal man ne léegi géntu war oto oto moom lan la warukaay. ñeenti tànk ma dem ca fas. ñeenti ah, tànk fas moom lu mu doon fas warukaay la. léegi ba fas lu muy firi fas jigéen lay firi jabar ma dikk ni waa loolu jigéen la c'est pas vrai c'est faux. ah déedéet ça n'a rien kon oto du jabar déedéet. te loolu la la firi gént. waaw man gars yi ñoom gars yi dañoo juum wala. waaw moom mii. loolu si laa doon ñëw parce que xëy na par état man ñi ma yóbbante ay ay gént dafa dafa bari sax. Ah, ah. waaw te moom loolu spécialiste am la day day firi gént questions yoo xamante ne. ci firi gént la ci ci ci loolu la. ay ah, xam nga ñun. kon wax nañu wax nañu en résumé. en résumé nga ba pare waaw. Mhm. mën nañ mën nañ. ah bu leen neexee waaw mën nga dugg si. waaw lu ngeen ko bëggee rek. xam nga léegi nee nañ am na ñu xam dañuy gént dañuy gis. Mhm. waaw tey mën nga tëdd gént faatu jinne mhm. gént faatu jinne faatu jinne maanaam nga nga gént tëdd di sëy ak nit ah waaw yow eh, ki ngay sëyal mën na mhm. la jox kanam nit koo xam mhm. waaw ah mhm. la faru léegi loolu euh, gént la wala am na lu mu lay wan dafa am lu mu lay expliquer nekkul ay question de faru rab faru rab ak cooro rab non non nit ki mën naa gént sëy koo xam ni ñemewu ko sax netta waaw nit day gént man di ma wax gént sëy koo xam ni bu ma koy nettali maa ngi moom kese sax dafay am problème pour wax ma ko parce que day nekk koo xam ne ci moom kenn du xalaat loolu ci moom te pourtant lu baax la. ah. Hmm. loolu moo tax gént complexe gént sëy baax na gént am ay rapport sexuel gis nga lépp lu spermatozoïde xaalis lay firi ci gént c'est de l'argent. Eh. gis nga xaalis ci gént toujours sobe lañ lay indi xam nga lu tax loolu parce que ca barzak ñoom alalu àdduna sobe la médd lañ ko jàppee moo tax bu ñu la koy wax dañu utiliser sobe. kon ay kakaas si gént nag. xaalis la boo demee gént dem àll ci sa yére. di nga jot xaalis bu bare. boo géntee. sëy ba gis man niyu di nga jot xaalis mais nag ça dépend ci yan kakaa nga gént tamit. très bien complexité bi nag très bien ça. complexité bi mais ñenn ñëw ci bi ba très bien pare bi. non non non kon gént sëy xaalis la. waaw xaalis la nekk besoin sax dama ko tënk ci benn baat boobu. waaw mais mën na nekk lu bëri. nga gént sëy mën na nekk dafa am loo bëgg ci ndaw si wala dafa am lu mu bëgg ci yow. wala dafa am xaalis benn communication bu nekk seen diggante bu ngeen ko bëgg communiquer secrètement. Hmm. am te du jaar ci yoon. daf la bëgg a nga defal ko nangam te du la wax clairement ni la lii laa bëgg. Hmm. nga maanaam benn jigéen bu lay sàkku. Hmm. souvent mën na nekk sa jabaru frère sa jabaru. njëkk la lool voilà kooku boo gisee mooy souvent am na ndaw si lu mu bëgg ci yow mais bëggu wax clairement ni la lii laa bëgg mais dafa bëgg am nu mu naxanteeg yow ba nga defal ko loolu moo tax mu ñëw sëyeeg yow ba am satisfaction mooy dina am satisfaction ci li mu bëgg hmm. bu fekkee da nga lànk mooy li mu la bëgg a def loolu di ko bañ d'accord léegi nga ne ci kakaa bi lan ci wax dem ay ginnaaw kër hmm. ci say yére hmm. bu dee biir bu daw la dina nekk xaalis booy jot mais du taxaw say loxo taf taf lay doon bu dee nekk xaalis bu daw biir bu daw mën na nekk xaalis booy jot boo xam dina toog mais bu fekkee ni ci ay toilettes ngir nekk mooy da am problème mu xaalis da nga am soxla xaalis hmm. mais bu fekkee ni yu dafa dafa nekk feel ngi ñëw taq ci mooy affaire bu lay gêner la boo xam dafa lay déranger bu nekk booy jënd la bu fekkee ni yow wow la problème booy sàkku mu dëgër la hmm. donc dépendre niwul rek amul génn benn bu fekkee ni yow la waaw looy looy la mën a nekk xaalis booy ut mu xaw a dëgër wala mu yàgg wala mu laaj jël temps hmm. wala mu nekk loo xam ne mënatoo mënatul nekk maanaam buntu boo xam ne tëju na nga dem dugg fa mais léegi nag liy leeral loolu détail yooyu mooy continuité wu gént bi maanaam xam nga doo ñëw rek ni ma damaa gént dem àll. waaw waaw da ngay da ngay da ngay. expliqué voilà après am ba ma la expliqué. voilà mais man li ma bëggoon wax ci loolu. kon kon kon kon voilà tuuti rek ñu arrière ci faru rab bi. Mhm. parce que damaa bëgg ñu dimbali nit ñi tamit. parce que sénégalais yëpp comme lu saa wax léegi léegi ku ci gént kii bu gént ak jigéen. ñu ne la man suñu waa kër dañ naa damal demal faju ji da am rab. Mhm. est-ce que yow tëdd guddi ah di di di sa keneen. Mhm. dama koy def. bien sûr. léegi bu góor bi tamit comme bu jigéen bi. ne loolu bokkul ak amul benn rapport ak danga am faru rab ak amoo faru rab. déedéet ak quatre-vingt-quinze parce que sax dañu naan ñëw na ci man. waaw démb kiiw diw la ani image diw la andi. Mhm, mhm. ñu sëy maag moom. Mhm. ñu jàpp ne rabam bi moo ñëw. waaw alors c'est pas ça. non pas forcément. pas toujours mais c'est possible. dina faral di am rarement loo xam ne rab la. mais du bokk ni muy dikkee ci yow. Ah, différence ah. bi foofu nga koy xam bu dee rab bi la lay dikkee ci yow voilà. bu dee rab bi souvent yow fi nga tëdd ci gént gi xam nga dafa ñaari forme gént gént bu am conscience ki fi nga nekk mhm. maanaam nga gént ni maa ngi ci sama biir néeg xam nga booy gént li cëpp yaa ngi feneen ci biir gént gi quoi mhm. fi nga tëdd di nelaw sa biir néeg doo géntoo nekk ci sa biir néeg bi nga yaa ngi nekk ca mbedd ma mhm. yaa nga ca marché ba yaa nga ca tool di def lii di wax li loolu mooy vrai rêve bi nga xam ni dafa am traduction mais bu fekkee da nga gént ni fi ma tëdd ci biir néeg bi ci kaw lal bi laay gént foofu Mm. di nga gis benn présence benn jëmm boo xam ne d' abord avant ngay tëdd sentir nga ko wala nga sentir présence am. muy daw sa yaram muy daw sa te melokaan bi muy mm-hmm. dikkee ci yow. melokaan bi muy dikkee ci yow ci ngay xamee ni kii rab la. Mm-hmm. wala gént la. bu fekkee dafa dikkee ci yow xam da nga yëg ni dafa mel dugg ci néeg bi nga tëdd sa biir néeg jékki-jékki am ku dugg ubbi sa buntu dugg ñëw nga gis mu ñëw yéeg sa kaw wala mu ñëw tëdd sa wet dana nekk rab mais fekkee da tëdd nelaw gént rek ngay am ak sëy ak ñëw mm-hmm. te fi ngeen di sëy mën na bañ a nekk ci néeg bi nga nekk maanaam feneen la mhm. wala xamuloo ban instant la fi dugg dafa jekk-jekk di gis ko mhm. loolu gént rek loolu gént la boo xam ne dañ koy firi ci nature boobu mais gént gént am na ci yoo xam ne dañ naan dëgg la am na yoo xam ne ah, ñu ñu du dëgg waaw parce que dañ ni boo géntee ci guddi gi c'est pas vrai mais boo géntee diggante bi ngay jullee fajar suba gi tey ci def ci attention dëgg la loolu may dégg ñu koy wax bari na yonent bi def ni a ruya a saaliha min allahi mm. al xulmu min a cheytaan a ruya mooy rêve bi nga am ci le sommeil paradoxal mais dina nekk gént bi nga xam ne yaa ngi koy gént ci boori fajar hmm. pour nga gént nag il faut nga egg ci le sommeil paradoxal le sommeil paradoxal mooy moment bi nga nelaw totalement hmm. nga xam ne amatu yëgatoo dara dara deux heures temps rek lay durer ci sa biir guddi léegi nag dafa am firikatu gént yi dañ ci dañ ci waroo foofu dafa am ñu ne gént yi yi nga gént ci première partie da ngay guddi gi ñetti partie hmm. nga ne par exemple minuit ba deux heures du matin loo ci gént c'est faux lu tax parce que profond wul ne la maanaam fii dama si ñëw ci loolu ñoom li ñu wax ba pare la seen waroo mhm. parce que dañuy jàpp boo commencé deux heures du ba quatre heures du mhm. loo ciy gént dafay laaj fii mhm. boo commencé quatre heures du matin ba sept heures du loo ci gént lu réel lu am lay doon dañuy jàpp ni instant bi géntu rawxaan la instant bi géntu ruux la géntu ruux xamul tax lool benn waaye dafa laaj Alioune Abi Talib Alioune Abi Talib Ah, mhm. benn waaye dafa ñëw laaj ko ñaari laaj mhm. ni ko Alioune man daal dama la bëggoon laaj ñaari laaj mu ni ko ban mu ni ko benn bi dama bëggoon xam lan moo tax nit di nettali dara ba si yàgg mu am lu mu fàtte mu nga fàtte mhm. ngay nettali benn affaire boo xam ba ci digg mi nga bloqué dal nañu léegi dal na la léegi wala ngay jàng aw saar ba si yàgg nga bloqué mu ni nga taxaw insister tuuti mu ñëw nga continuer ni ko blocage boobu lan la ni ko benn business lan moo tax nit tëdd di nelaw gént dara xëy suba gis loolu exactement comme ni mu ko mën a génte ni mhm. ko loolu nu mu mën a nekke mhm. mu ni ko effectivement xel ci bu njëkk bi mu ni ko xel dafa mel ni weeru badar mu ko xam nga weer buy nit di leeral ba ci guddi gi na jekk-jekk léeg-léeg romb ko mhm. mu ne bu ko niir romb bi da koy fatt dootoo gis lumière bi ñëwtul mu ne ko ndax weer war dafa fay mu ne ko déedéet mu ne ko fayul de mais niir yi ko traverse ñu ko nëbb bu ñu jàllee rek nga continuer ñëw mu ne sa xel noonu la mel léeg-léeg niiri bàkkaar yi ñuy def ñoo koy fatt bu traversé nga continuer gisaat moo tax nga mm-hmm. gis mag ñi bu ñu gagee comme li ma la wax naan bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. dañ naan wax allahuma salli ala sayyidina muhammad wala ñu ne astaghfirullah astaghfirullah mm-hmm. pour bëgg loolu jàll ñu mën a continuer exprimer gént gi ni ko mu ne ko bis des nag mu ne ko li tax nit tëdd gént dara xëy suba gis loolu comme ni mu ko génte mu ne ko nit bu tëddee ni nelaw roox gi nafs bi dafay tukki dem arache mm. bu fekkee ni egg na bu fekkee ni egg na mm. lu mu fa gis na mu ko gisee la koy gisee exactement amul fi boo géntee benn camion xaal ñëw mbëkk benn poto lampe xaal tuuru nga yeewu suba génn ñëw ba ci place boobu nga gis exactement même camion bi ñëw mbëkk poto lampe bi xaal tuuru nga ne eg lii nii laa ko gisee démb xam day am mhm. waaw nga gént benn affaire day am de loolu loolu nag laa lay nag image boobu mhm. foo ko jële te amagul mhm. waaw foo ko jëlee parce que li ngay dund fii dund ko ko feneen ca barzak ci ci baatin ba pare maanaam dund ko ko ci ruux ba pare léegi nag fii da ko appliqué ci image ci jëmm te so image ma nga borom moo tax image boobu di waaj am suba te amagul moom lañ la wan parce que image bi mi ngi fi am na mhm. ñu wan la image boobu nga xam dafa war a am suba wala ginnaaw suba wala dans dix ans parce mën nga ko gént toog dix ans soo ko gis mhm. waa nga ne li gisoon naa ko ko yàgg <laughs> léegi par exemple ma ko bëgg a laaj ah, ah. nga ah. maanaam nga tëdd mhm. yow ngay gént ci biir gént gi maanaam nit dama laa géntal waaw maanaam ci biir gént gi waaw ngay expliquer li nga géntal nit effectivement loolu lan la loolu mooy lu faux mooy lu nit ki di foog te loolu amul maanaam boo géntee di wax gént waaw mooy am na loo jàpp wala loo foog wala loo yaakaar te c'est faux ah. gént ci biir gént mooy le foo loolu leer na dafa am ko ma ko yo léeg bi bu ñun ñett ñi la concerné maa ko gént waaw damaa bëgg mu wax ñu ko xam nga man su ma géntee te fàttewu ma rek ci yoon gént bi dafa war a am signification mhm. te barki alxuraanul karim loolu mat na ñaari at bu ma ko génte mos naa ko wax waaw yow sax njool wax naa la ko dama gént man ma ñëw fekk leen ñoom ñaar ñu toog mhm. ma leen dañ maa jox benn tool pour ñu bay ko mhm. ñoom ñaar njool naan ma bay waaye saa yi ñun dañoo mën a bay leen day fay maire bi maire la ma leen meer bi day fay as na ma kon ko day fay nañ dem ñaata la lay fay ma ne ko noonu am na xaalis buñ ko waxaa bu ñu waxaale ak moom nañ dem rek mais bi ñu demee ba ci tool bi dafa def ku nekk. waaram waaram mu bëri. ñu cof ñu waaw ñu ñu pare. ñu pare ñu ñu bay ku nekk bay sa waar. Mhm. ba ñu paree nga ne ngeen ma booy ah du fay nag yow lii moo taxoon waroon waxaale avant ñuy kii ci gént gi de. waaw ma leen gëm leen yàlla rek booy dina fay. dina fay. ñu jékki-jékki rek xaar lu yàgg ñoom ñu may teg pression. Mhm. maire bi ñëw andi ñetti dërëm. Hmm? weccit baaxul weccit nii la ma xoolal ñool ñool ne ma ñetti dërëm. waaw ma ne ma ne ma ne ko mais comme que lii lañ jox nañ dem après mu ne non non bu leen dem xaar leen. mu andi ñaari ginaar ginaar pettaaw. waaw mu jox ki benn ginaar pettaaw jox ki benn ginaar pettaaw. waaw man joxuma dara. waaw gars yi naan ma ah yaa ñu fi andi jox ma ñu ginaar kay yow jox la nañ dem rek mais bañ dee ba ci yoon bi. Hmm. mu ma ma ñëwaat mu jox ma gaynde bu ndaw. i man ñu jox ma gaynde bu ndaw ñu ànd ñun ñetti dem. ñaari at ba mënumaa a ba fàtte gént boobu. macha allah la. très bien. ci ñun ñii. bu dee nag looy xaw yi suñu la ñun ñett bu ko wax. déedéet bu <laughs> <laughs> baax yaa ko wax penc mi. ko. ah naa la ko tekkiloo ma ko. waaw tekkiloo la ah waaw. xaw ma lan la ay gars yi nekk gannaaw di pettaaw nuñ koy. tekki man weccet gi mooy sama problème weccet gi. jox nañ wecc la <laughs> dee daal mën ngaa wax. waaw macha allah. non bu dee dee sax garaawul leen léegi. ah loolu lu baax la. waaw ah, ndaw soosu. waaw xan la. ab meer la waaw. waaw la. tool bi leen dugal. Hmm. tool bi dafa xaw a pente dafa xaw mel lu def benn genre descente. waaw mën na am ay garab. parce alxuraan am na ay garab. yu bëri xaw a verte. loolu ah, la may demee sax. yaatu. Hmm. boo ko seetlu woon bu baax xëy na peut-être détail boobu doo ko seetlu. di ngay dugg ci tool bi da mel ni ku xaw a jàkkaarloog jant bi tuuti. barke alxuraan kon yàlla ma yow suba li nga wax moo am. ku xaw a jàkkaarlool. jant bi billaahi wallaahi taalaahi. da ngaa jàkkaarlool jant bi. waaw jant bi di yéeg instant boobu. Mm-hmm. moo tax wala mu nekk luy sooba tey mën na ko nekk. Mm-hmm. mais instant boobu mu ngi lay jox côté yooyu diggante ay dix heures. Mm-hmm. wala ay dix huit heures. mais boo ko seet woon tuuti li ma lay wax. tool bi dafa xaw a pente légèrement. da dem si sore nag sore bu sore la dox nga ci biir lu sori. waaw waaw loolu la waaw adduna la. koom-koomu adduna la. wërsëgu àdduna la mën na nekk jotaay bii ngeen di am mën na nekk ni gént googu mooy jotaay bii ngeen di am hmm. ginaar googu wërsëg la dërëm boobu waaw ginaar ginaar dans tous ses états ci gént ginaar googu wërsëg la hmm. dërëm yooyu kaaraange la hmm. dërëm yooyu ndimbal la dëma dërëm yooyu soutien la dërëm boobu lu leen di watt la kaaraange la ci yéen moo tax mu jox leen ku mën na leen a aar li tax na mu woowaat la jox la gaynde bu ndaw laa c'est extraordinaire gaynde turu yàlla la mais gaynde force la puissance la bu la joxee gaynde bu ndaw mooy di am nga benn capacité pour diriger dara am nga benn capacité pour mën a gérer yéen ñett ñi seen seen mbir dof bi waxoon na leen moo tax moo tax ne leen dof bi benn dof ne woon na leen dee leen toppatoo leen seex bu baax de waaw ci grand dem grand effectivement am nga capacité wu pour mën leen a euh, bu ngeen liggéey ensemble si dara loolu day jëm kanam bu nga boo nekkee da cee un dirigeant. ma prouve leen wala. non non saa waay ko ni mënu la professeur. Hmm. yan mbir ngay gént. Hmm. mu wan la nag que ne yaa ngi waaj a dugg si ay jafe-jafe. waaw. Hmm. ñaari question la beneen bi mooy lan ngay gént ba xam ne sa yaram am na njabar wala. catta ngi sa yaram. ñaari question yooyu la. waaw tey mu neex. voilà xam nga gént. bu njëkk bi nga ne ko lan ngay gént waaw ba nga xam ba xam ne yaa ngi dugg ci jafe a dugg ci ay jafe-jafe tontu ci boobu ba pare professeur boo géntee gis ñu police jàpp la monote la dugal la ci kaso mm. ñett yooyu foo mu am mm. mu jàpp la monote la dugal la ci kaso bu xat mooy di nga nekk ci xat mooy gént kaso waaw bu la dugalee ci kaso bu yaatu nag di nga kaaraange la ci yow ok loo tax mu compliqué mm. boo géntee police jàpp la te monote la du dugal la ci oto baax na mais am nga ay reproche yooyu reproche sa bopp wala jàpp nga ne yow def nga loo xam ne c'est pas normal boo géntee police jàpp la hmm. mais bu la mënatee nag dugal la ci kaso bu xat nekk ci jafe hmm. boo géntee nga nekk ci ndox yu salté hmm. di nga nekk ci ay jafe wala nga feebar di nga nekk ci ay jafe wala nga feebar waaw loolu déggoon boo géntee nekk ci lëndëm waaw mën na nekk sutura mën na nekk fitna ça dépend loo ci biir lëndëm boo géntee dugg ci pax rigu ci rigol rigol mooy di nga am ay blocage di nga nekk ci ay difficulté pour bëgg a génn ci benn situation mu tëla mais booy boo duggee ci rigole rigole waaw wala wala wala kii yooyu daal tiwo affaire yooyu rek waaw waaw égout égout très mm-hmm. Mm-hmm. yooyu donc dafay vaste nag mm-hmm. mais toujours gént am na nii maanaam toujours gént am na nii am na njuuy am na njuuy mooy gént gi moo tax i faut que Ibn Sirine bu ko nit ma saan laaj gént mën na toog ak yow presque journée bi yëpp di la poser ay questions parce que dafay dépendre en même temps ci su dund yow mhm. dafay dépendre en même temps situation bi nga nekk te mhm. sa biddéew ak sama biddéew mën nañu waroo ci gént mhm. yow mën ngaa gént benn gént ma gént ko te duñu bokk li ñuy firi d'accord parce que yow biddéew bi ñuy waxee ak yow ak fi ñuy waxee ak man bokkul xam nga bu ko defee nag loolu dafay tax suñu gént du wute day wute ak situation bi nga nekk ak bi ma nekk bokkul boo géntee sa noon may la xaalis ak nga gént sa la xaalis du bokk li muy sa noon bu la may waaw noonu dañ si ñëw. dañ si ñëw naa mun mun ginnaaw teg question bi. beneen beneen waaw waaw. santi na sa yaram am na cat wala njabar. wala liggéey bu nekk sa yaram waaw liggéey bu nekk sa yaram. waaw loolu di boo ko géntee gis lay sànnee xeer dana ko nekk. sànni xeer boo géntee gis ñu lay jam ay puso dana ko nekk. waaye gént barewul lu muy fa wax ni la da am cat dangaa am cat yow wala dañ laa njabar. Mhm. bu njëriñ dañ laa njabar sax mu ëpp lu mu koy fësal. Mhm. dana nekk nga gént gis ñu suul la. maanaam nga gént dee baax na mais bu ñu la suulee baaxul xam nga différence yu ndaw yooyu hmm. boo géntee dee lu baax la ci yow yëkkati ko ci àddina la boo géntee dee gis ñu yor sa koor yëkkati ko ci kaw sa néew hmm. mooy di nga yëkkati ko ci àddina waaw boo géntee dee mooy dina am changement buy am ci sa dund bu positif ci wàllu koom-koom mais bu ñu la suulee mooy di nga nekk situation boo xam doo ci génn mu yomb la d'accord léegi gént di naaw lan la gént di naaw ça <laughs> bu fekkee dafa am lu la tiital moo tax nga daw am lu lay dàq nga naaw am lu lay dàq nga am lu lay dàq ngay def nii xolal ngay dóor ci suuf rek ñu naaw <laughs> waaw dal ci biir étage naawaat dalaat ci beneen loolu dama koy def superman yooyu boobu moo ëpp lu muy <laughs> waaw boobu moo ëpp lu muy am <laughs> boobu sauté ay obstacle yooyu traversé la am loo ragal te yàlla dina la ci musal mooy bu fekkee da nga mm. gént am lu lay dàq ngay daw di tëb mooy am na looy ragal yàlla dina ci musal bu fekkee da def naaw boobu nga xam da ngay mel lu tëb fee wàcc feneen jugaat mooy di nga sotti ay obstacle yoo xam ne dana yàlla dina la ko yombalal doo am ay jafe-jafe mais yàlla dina la ko yombalal nga génn ci gën def yaramu neen nag taati neen bu fekkee bi ngay mm. la mm. kenn tiitalu yaa dox ba mu neex rek nga naaw bi ngay naaw kawewul trop da nga xaw a tiim nii nit ñi mooy ba tey ay situation yu difficile yooyu génn la quand même mm. bu fekkee nag da naaw naaw bu kawee kawe ca kaw mooy di nga mës a yëkkati ko ci àddina ci alal wala ci xam-xam wala ci nguur wala di nga gudd fan. laa ilaaha illallaah loolu li ma koy gént bëri na. donc ma wax sama gént googu man. Mhm. ban def yaramu neen yaramu neen maanaam sololoo tubay sololoo dara ba pare dem ay nit. bu fekkee da nga gént def yaramu neen solo tubay solo dara. nit ñi di la gis mais faalewuñ la reetaanuñ la. waaw defuñu leen benn équation ah. baax na. mucc ci dara la génn ci ay situations yu difficile la set ci bàkkaar. mais dama lay wax benn affaire nag gis nga kilifa gi. Ah. da ngeen war di man dañ laa doon reetaan non man reetaanuñ ma mais mais njool njool dafa am lu nga xam ni xanaa xamoo man waaw Ndiaye yaa ngi ngoonal te nag xam nga man feebar naa feebar naa feebar naa fi ñetti at waaw lii muy wax nii ci li ma gën a feebar ci la bokk lan man damaa gént hmm? jamono yi ma ma feebaree noonu waaw ma gént def yaramu neen waaw te maa ngi dem ci biir nit ñi maa ngi làqu di def nii waaw barke alxuraan mais kenn gisu la gis na ay nit gis nañ ma mais ma nag. waaw mais man maa doon na làqatu nit ñi di def nii. waaw. mbaa sa awra génnul ma xëy suba ñu yóbbu ma ci benn sëriñ. ma ko téye dama ko nëbb. waaw waaw waaw. jaay fi nga jàpp baaxul. waaw dama koy waaw waaw day dem laaj bu awra bi génnee tamit. am lu muy lu muy firi. ma xëy ma xëy dem ci benn sëriñ waaw sëriñ bi mi ngi dëkk Fass Mbaaw xaw ma Zag Mbaaw waaw waaw waxal rek bul wax foofu kooku kooku sëriñ boobu ko wax garaawul ah, non non ñoo bu la ci sëriñ ñu yóbbu ma sëriñ bi waaw nettali ma gént gi ma nettali ko gént gi waaw bii la xam lu ma wax hmm. dañ laa liggéey liggéey bu bon ma gën a da dalaa tiital xam nga temps yi temps mu gën laa tiital billaahi ma gën a feebar xoolal su ma toog may miir di miir te dafa maa wóor ne man lii laa gën. mais ko woon a wax nag même bu nekkoon waru la ko wax. non déjà xam nga. dalaa waroon wax ni rek lii jàmm la day deñ. day fekk xam nga lu waral loolu saa. du ma xoolee dina ko xam lu waral loolu. bon oh, kii mere naa ko ah. mooy quatre-vingt-quinze pour cent ci sëriñ yi boo fa demee. Hmm. da lay tiital. sëriñ sëriñ sëriñ ci assassin ah. hmm. lu ci bare ci hmm. sëriñ si boo ci demee lu lay tiital la lay wax pour mën a lekk ci wax su ma waxoon ne ma jóg que temps yooyu sama xel mi dafa naaw daay dama tiit. ah da nga defoon na ngay dee. mais loolu laa gis yow taay da nga fàtte taay. mais maman yu suba. <laughs> Mm-hmm. jàkk suba su ma tëddee pour man duma yeewu suba dama stressé woon am crise d'angoisse. mais saa yi ma lekk wàccu ko. dina moom gis nga bis boobu su ma ne woon lii yokkute la ak gudd fan. moo rawoon ma jóg. billaahi su ma ne woon gudd fan la ak yokkute. mais li professeur wax nag foog mu tiital la pour mën a lekk sa xaalis. ah li ëpp bu demee ci ab sëriñ ah yow li ma gis ci yow liggéey bu ñu liggéey bu bon si bàmmeel lañ ko suur ci almeer dañ laa daaj ci kii nangam nangam sa fit bi rëcc mu ne ne ma neen taat neen liggéey bu bon la ñu def man de mës nañ maa wax mës nañ maa wax dañ laa suur ci potu ci potu meew euh, potu neche café ko ci euh, armeer billaahi wala biñ ma ko waxee dama ne kooku toj na mu ne ma lu tax ma ne ko bu ma man man bu ma lu ma yëg toj na <coughs> mu ah, yow saa yi mbaa daa ma ne ko comme que wax nga ma ko toj na te man damay gëm ni toj nga après day jeex. waaw mooy kii boo ko waroon def. yow mm. liggéey la jàppale waaw nga demal demal. Mm-hmm. non allez-y man yow liggéey la jàppale yombul. ah la sama waa ji. Mm-hmm. <laughs> daa bëri. kii ni ma xamee dafa métti ah. bu weesoo émission bi sax lu mu lay wax ginnaaw émission bi mm-hmm. sama waa ji ba mu yëgee ne yaay ñëw parce que saa moo déclenché gént bi nag man may daal ay question la waaw dafay waaj a takk benn jigéen nii benn femme. waaw mais dafa gént femme bi jóge ci kaw asamaan si daanu. di daanu eh. di daanu si suuf. muy benn. loolu tamit neex na. am na benn ay fan mu gént jaan màtt ko. jaan màtt kan doom la moom moom. jaan moom waay na ñu ne jaan doom la. waaw loolu dinaa si xam nga xamaguñu. loolu wax waaw léegi loolu noonu moom daal tiital na ko ndaw si jóge si kaw asamaan si xaw ko di ñëw te mu war ko takk. laal na frein bi moom fi mu nekk ni taxaw. waaw mu ne laajal leen ñu daal seen waa ji loolu lal changement la bu am ci ndaw si dundu ndaw si mooy changé mooy changé positivement wala négatif. positivement. d'accord hmm. jóge ci asamaan daanu. Hmm. fi du lu garaaw ci gént. Hmm. changement la booy jóge ci benn étape. ñëw dund dund transition terre à terre mooy dafay jóge ci ndaw si da daan dund ci xel. maanaam ndaw si muy a takk. dafa nekkoon koo xam ne dafa daan dund benn dund boo xam ne mel ko isolé wu. waaw bariwul woon top contact ak monde bi nii. aju woon ci kaw waaw. nekkul nekkul loo xam dafa bëri jëflante ak nit yi. waaw su mënoon su la mënoon woo nii léegi dana la li ma lay wax. ndaw si nekkul koo xam ne dafa dugg ci nit ñi de trop waaw dafa nekk nel kon dafa xaw a réservé wu am benn dund bu muy dund bu xaw a isolé wu waaw léegi nag dafa war a wàcc sur le terrain hmm, sa waay ko wàcce sawaay moo ko wàcc goro gi lay xaar kon exactement loolu mooy tax hmm. léegi dina ñëw dund jaan bi ko mat sa dépend nu couleur nu jaan bi mel ban façon jaan la fu mu ko mat daf ciy fee te ñoom dañuy def ne jaan bu la mat rek doom la déedéet jaan Sénégal seytaane la jaan noonu la jaan feebar la jaan noonu la bu silencieux maanaam noonu boo xam ni doo ko foog day nekk si wetu naan waa saa yow. vraiment yow ci professeur. mooy di xaar le bon moment pour def la dara. te gis nga maire hmm. ay maire yàgg nañ ci xët seeni doom xët yu metti yoo xam. <laughs> ñaan ko yàlla leen dóor. léeg sa doom bu jigéen yeewu ne la yaay jaan laa gént rek nga xët ko. <laughs> Eh, te xam nga joxe sa taati. Ah! wallaahi ah. kii ma raam koo ko jox. yow kii. wallaahi yow kii de. fan yooyu yëpp ñu jàpp seen doom yi di leen yóbbu hôpital di leen surveiller di xool wallaay dëgg ay xamoo sax day mais da gis boroom kër bu ko gént sax commencé dajale ne leen maam dog dëgg la ah. effectivement fekk du loolu jaan mi ngi gën a xaw a nekk doom léeg-léeg bu la laxasoo ci sa kaw la ah. te du la matt daf lay laxasu loolu mën na nekk doom booy am mais bu la màttee rek saay saay bu lay gétee dugg na ci wàllu saay saay léegi noonu la bu lay def dara dana la wax kàddu jëmee ko ci yow wala mu jéem ci yow dara wala mu nekk feebar mën nga gis waa ji xaw a tawat quelque temps yaram bi xaw a tàng mu feebar ñetti fan mu dañaat gis mën nga gis waa ji ki jaan maat mën nga gis après mu feebar tuuti rek ñetti fan rek mais day dañaat yow yaay Messi Sénégal mooy Messi fu ñu toll nii de waaw waaw yaay Messi de yaa fi ne waxuma feccantu de waaye toog jol ko ko def di kappar ñu ca kaw man du man de waaw dafa am lu koy wax jol naaw bi nee nga yow la <laughs> non non non bu ñu wax pakkar ñi bi boo géntee gis. <laughs> parce que yow xam nga signification bi moo tax. <laughs> boo géntee gis ñuy tëgg sabar muy pàkkar ñuy tëb ci kaw. waaw daa nekk ci ay fitna. bu fekkee ni. <laughs> attention. non man géntu ma ko nag barke yonent bi géntu ma ko <laughs> man billahi wala man samay géntu du xam na ay film yu beneen mais bu fekkee ne gént bi dafa mel ni danse bu comme musique waaw ay joie yu muy am lay mbégte la xaqataay nag ñax ñax ñax ñax ñax ñax waaw loolu tamit fitna la jaxasoo la stress la bu fekkee dafay xaqataay di kët ci kët bu fekkee dafay reetaan reetaan bu yem bu cool loolu tamit gentillesse la boo xam ne dina ko am par rapport ak ki muy reetaan léegi kilifa gi man lu baax la waaw ah, ñëw yaa ngi ñëw ki gént di saay <laughs> doo ko bàyyi muy tontu par benn <laughs> xorom ay souci la <laughs> ma dëkkam ma dem ah waaw ah, ba ma wala man ma ñëw léegi demal demal Ndiaye ma demal waaw demal waaw man moom du ma la ñëw baax na na hmm. waaw yanu xorom fitna la waaw hmm. kay ñaw dana nekk kuy defaree nit ñi kuy defaree diggante nit ñi man kilifa gi ah. man lii ma lay wax nii man na nekk koo xam ni dafay dox ci diggante ñi di wax lu baax di def lu baax man daal koo xam dafay régler organiser waat mbiri boppam dundu boppam. Ah. monsieur bi la ñu wax. man daal. Ah. professeur li ma lay wax nii man. man doon samay gént la man kenn yóbbantewu ma. bul wax say gént. non man bu dangereux du bu ma ko wax. abaa dagg ko. waaw déedéet maa ko gént. <laughs> man damaa gént. Hmm. ànd ak nit xamatuma kan laa àndal gis mos naa la ko wax defe naa man sama gént yëpp amay am seede. waaw ma ñëw ba taxaw ci di comme dex la du géej dex la. mais après dex bi am ko sol lu weex tar ku taxaw ki ma àndal na ma gis nga paa bu sol lu weex lële yenent bi la Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mais il faut que man ma traversé pour mën a dem ci moom mm-hmm. jotuma traversé na en tout cas ma en fait après fàtte naa suite bi mais xam naa ne man traversé wu ndox mi mais seen naa ko mu sol lu weex xew ne la ci beneen côté bi mm-hmm. loolu laal la da ragal ndox mi waaw waaw da nga ko ragal wu ma moom voilà dama koo ragal moom ay épreuve yoo war a subir la yoo war a def yoo war a jëf pour egg ci beneen dimension ci wàllu spiritualité maanaam am nga cëru mën a bokk ci njabootu yonent bi yonent bi bëgg na la parce que xëy na am nga xol boo xamante ni si yonent bi choisir na la mais li mu laaj ci wàllu jaamu yàlla peut-être ci wàllu def-def pour nga egg foofu defoo hmm. am na loo deful ci sa wàllu jaamu yàlla loo xaw a sàggane. waxtu julli heure. Hmm. Ah. julli heure julli heure fu ñu toll nii jullee gu ma timis jullee gu ma gée lii rek ay sama problème. dem. nga ni ci waxtu wa. Ah. wax loolu nee na ma julli ca waxtu wa yàlla wàcceel na ko saaru bopp. waaye loolu du thème bi wuy ma kii mooy thème ñëwal. gaa ah, gaa yi yóbbanteeti ma ma ñëw waaw waaw kii nee na dafa gént jëkkëram fase ko. Mm-hmm. loolu loolu baax muy benn. keneen ki ne ma dafa gént xaj matt dàllam ak dàllu jëkkëram la loolu dëmm yóbbu ko nag. Mm. waxal xasida daf ko yóbbu matt matt dàllam ak dàllu jëkkëram ba pare yóbbu. gis na deret wala gisul deret bàyyi ma tekki ko dalu ko commencé deret ni muy génn. léegi professeur léegi na wax yow tekki na tekki dama si passé bi ba pare léegi waaw professeur matt xaj bi waaye mu wax ma wax après nga après waaw hmm. léegi ki gént jëkkëram fase ko nag ki gént jëkkëram fase ko boo seetlee moo jëkkër ji am na benn problème bu nekkoon seen diggante boo xam dafay xaw a yàq seen diggante neexul ni mu war a neexee bu géntee jëkkër ji fase ko mooy loolu day jeex problème boobu mooy jeex c'est le contraire ah kon contraire bi fase du am non non fase du am maanaam problème bi nekkoon ci seen diggante ñoom ñaar ñuy xaw di jàppante tuuti am ay problème ay détails yu sew problème boobu mooy jeex. jot na ko fase. fase na ko. <laughs> ah problème bay jeex. non fase wu ko nii daa tiit. moo tax mu yóbbal te baloo fase na ko quoi. waaw du réglé moo ma yóbbal te loolu dafa dafa tiit. non non ma ngay saraxe rek fi mu ah, bu mu tiit dara. ah non non lu baax mën na ut lu weex. waaw mu jàng ci Fatiha ñetti yoon. waaw saraxe ko. waaw léegi xaj bi ñëw mat dàllam ak daal dàllu jëkkëram yóbbu ko dem ak moom même personne bi déedéet déedéet keneen la loolu loolu lan la wax. bàyyi saa firigo. waxal pare ma wax loolu man pour man kooku. Hmm. Hmm. <laughs> yaa dañu ci xat-xat. man du xat-xat xar wax la lan la. Ah. seen couple dafa amul amul affinité. seen couple. waaw amul amul seen couple neexu. Hmm. parce que xaj xaj bu jàppee sa daal day foox. fidèle day focc daal waaw. moom daa bëgg xaj ma xam nga ay xaj la yàlla. waaw waaw mu defee ne xaj ñëppam baax sagal <laughs> ko sagal ndax àdduna koy seetaan. <laughs> sagal ma rek le monde te temps loolee. ñun seen couple amul amul kii duñu fo. le Sénégal tëkkut le monde. waaw baax waaw baax professeur doxalam mattee say daal yóbbu ko. sa daal jëkkër sa daal waaw wóoru. am nañu noon buy wax ci seen diggante ñoom ñaar. alhamdulilah. xaj buy attaqué. Hmm. noon buy wax la. Hmm. mais bu nekkee sa xarit compagnon la xarit bu sincère bu fekkee nag dafa leen di attaque ñu jël seen i daal yóbbu ko mooy noonu la boo xam dina wax ci seen diggante loo xam mën na yee fitna ci seen diggante ñoom ñaar ah. ñoom ñaar dinañ am jaaxle jaaxle ci seen relation wala ñu am jafe-jafe ci dara xat la yaa hmm. gañ hmm. loo xam ne noonu moo ko def boo xam ne day wax ci ñoom ah, noonu yow xam nga tamit gën a nekk xalaat ci li wax na de say dàll ankay dañ ko daggoon yóbbu ko dàll moom ko hmm. waaw waaw dàll ba yóbbu loolu la loolu du gént waaye lan la daal bu dagg ci gént sax. man dëkk bonati. toog ba sa daal ni teppi ci gént. waaw ah. ma dëkkam ma dem. dem ñëwal professeur. kii moom nee dafa gént. ñu koy tax nii ma jox mhm. oustaz oustaz boobu nu mu tudd si. kooku santoon Guèye. waaw ak kenn firi gént. émission bi dama yaakaar gént bi moo leen yëngal fi mu nekk waa. waaw parce que nee na moom dafa gént ñu koy takk dafa gént ñu koy takk mais xam nga dañuy tiit waaw ñu dem bay waaj a takk jàq jëkkër ji woote si jàq de tas sëy bi muy benn deuxièmement kii moom neen dafa réer si marché ba di yuuxu rek ci marché ba la réer waaw professeur la bu géntee mu réer ci marché bi mooy ku réer ci àddinam mooy ku jaaxle ci mbiri boppam ku jaaxle ci wàllu àddinaam wàllu liggéeyam wàllu sëyam wàllu famille am wàllu njabootam mën na nekk lu nekk parce que marché àddina lay représenté donc mooy am na ci ay jaaxle jaaxle am na ci lu ko ci. lu ko ko saa waxee lu mënul résoudre. Mmh. donc problème boo xam ne daal mënu ko comprendre. ko daf ci réer ko loolu mmh. waaw réer réer la réer loolu lay firi ci gént. jaaxle jaaxle ci sa ma ñëw waaw ah, ñaar yooyu la de. waaw ah, léegi ah yooyu la ah, waaw yow di julli sëlmal ak di julli bañ a sëlmal ci gént. julli boo ko defee ci gént dina nekk ni am na mbir yoo mal ba ko lijjanti. waaw léeg-léeg mu jëm ci koom-koom waaw waaye boo sëlmalul nga yewu hmm. mooy des na moo gént di jàpp ñu yem rarement ngay gis ku jàpp ba jàpp egg ci gént gi da ngay gént di jàpp mais bala moo egg rek nga yewu mais boo jàppee ba jàpp egg hmm. nga kàbbar julli ba sëlmal hmm. mooy di nga am satisfaction ci benn soxla boo amoon benn besoin boo amoon waaw alors loolu ah, ah, ah. man day maa ngi leen koy ñaan nag dama koy ñaan di leen ko ñaan ngir yàlla ak yonent bi yoo xam bu leen ko wax man de am naa soxla man ñaan ko suñu borom hmm. tëdd gént mais du jour bi ma ko ñaanee li ma koy ñaan la ba dal hmm. ñaan naa ko ñaan naa ko ba après ma arrêté hmm. à gént naa julli ba sëlman macha allah suma benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Fallou Rahman mu ngi doon nuyu léegi chaque jour ci émission yi wax ko mu ni ma sëñ Cheikhu sëlmal nga man ne ko wallaay sëlmal naa mu ni ma julli nga gént nga nga julli ba sëlmal ma ne ko wallaay njaay sëlmal nga mu ni ma am nga looloon ñaan yàlla dina la ko may te loolu barke alquraanu karim yàlla may na dëgg la te yéen xam ngeen ni yàlla may na wallaahi dëgg la yàlla may na xam nañ ci dara ñu bugguma ko wax nag ma wax déedéet bu ko wax dama la ma dama la ma bugguma ko wax nag mais loolu moom suñu borom may na ma ko te maa ko ci sant alaay wooral benn fan sant ko yàlla démb wax nañ ma ko nag ah. démb nee nañ ma wooral benn mais démb ni situation bi demee ma wax ko walla ma bañ waaye bilaay sa bul wax sama yëf nag yow kii yow xam nga ah, màq bi ñu jox ñi waaw léegi ala am na bu ma tontoogul dinaa ko woor nag force la bis bi bisam boobu bis bi ma bi ma yàlla joxee xéewal biyee màq bi dinaa ko bu dellu see dinaa ko woor sante ko yàlla sunu loolu baax na saa ngeen bee baax waaw mooy ki jëkkër ji waaj doon waaj a taq ba ñuy waaj a xutba sëy bi jëkkër ji war si jàq ca sëy bi ah waaw waaw waaw waaw ah doon waaj takk waaw ci gént gi waaw bay a xutba a takk waaw woote tas sëy bi ci dëggantaan moom amul jëkkër amul jëkkër kooku it nekkul ku koy sàkku jabar ci dëggantaan non non non parce que dafay dépendre ci ñaar yooyu ba xam dëggantaan gént rek quoi daf ko gént loolu rek te bokk ñi ngi bëggante ñoom ñaar quoi effect ah mais loolu mën na nekk soxla bu mu am mu dem ba ci dernière minute yi mu am tuuti ay ay ay détails yu ndaw taaw yu ko yaakaar bu tas tuuti yaakaar bu xaw a tas tuuti quoi mhm. parce que tas nañu sëy bi mooy que li ñu naroon takk jabar baax na géntu ñu lay takk baax na chance la mais tas bi moo ko ah, tas bi mooy dana am retard mooy peut-être ñoom mën nañu programmer dañuy takk mu dem ba si bi mu am ay gàllankoor mu am retard ñu jàppaat beneen nañ la waa léegi kii dafa gént am magasin hmm. ñëpp di ko coow magasin bu rafet mu dem ba koy ubbi doxo doxo dox bay ubbi magasin ba caabi bii réer hmm. mu dëpp ñu naan si fini nit ñi di jooy ñu ñi di kërëb kërëb te muy jaaraat pour jëli caabi bi dafa metti mais foncé na ba dem ba jënd caabi bi hmm. na bàyyi magasin waaw caabi ci gént macha allah même caabi bi jëndaat na barakallah waaw caabi ça veut tout dire ci gént waaw buntu xéewal la doom la wërsëg la ñaan bu ubbeeku la xam nga buntu ngay tijji. Hmm. <laughs> tijjeeku la ñaan bu nangu la ñaan bu ubbeeku la ci moom. Hmm. mais nag bi mu ñëwee am na lu mu jëf pour egg foofu. mais après dafay am lu des. ni ngi mel ne ngay lijjanti benn affaire ba ci fin bi ñu ne non il faut nga wuti kayit sàngam. waaw nga delluwaat nag loolu la nekk lu jafe mu delluwaat di kërti kërti di lijjanti ba am loolu andi ko. pour mën a pour mën a résoudre problème bi am. mooy wër gi mu wëri caabi ji ba gis ko ba jënd ko indi ko mooy benn affaire bu ko manqué la pour mu mën a réaliser benn projet boo xam ne dana ko am dana ko uti ji loolu dana ñëw ba as ñu na nangam il faut nga indi nangam pour am lii mu dem am ko indi ko mooy caabi ji mu indi mais moom mu ni découragé wul da koy dem wuti effectivement si gént professeur baax na baax na na boo ko foree bu la ko joxee day ubbi bu dee caabi yu bëri bu dee benn caabi mën na nekk doom booy am te bu dee caabi yu bëri wërsëg la diggante douche bu salté ak douche bu xat voilà foofu ay souci la ay problème la ay feebar la. Hmm. problème mu xaalis la souvent. waaw douche bu salte salte ak douche bu set set. lu bare lu ko nit di gént la. nga dugg hmm. ci douche bu salte hmm. nga gis mu taq ah, mooy am nga ay souci wu xaalis am nga ay problème mu xaalis. douche bu lan bu salte bu salte ah mooy da ngaa am ay problème mu xaalis yow. waaw wala nga tawat. wala nga am tuuti feebar. waaw wala nga nekk ci situation bu gênant. bu délicat bu délicat. situation daf lay gêner quoi am benn problème boo xam daal vraiment da nga ci am lu gêne da nga ci am lu la metti mm. mooy nga nekk ci douche bu salté ni ngay seexloo noonu di di di kii mooy gêne bi nga am ci problème bi nga nekk wala nga am problème mu xaalis parce que tamit loolu mën na dellu ci chaîne ba tey problème mu xaalis boo am boo war a a a def nangam te yorogoo mm. mm-hmm. mm. la laa ko bëggoon laaj géntu ba pare ma doog wax man wàlliw bu ma gént gént wàllu lan dafay dépendre ci noo gisee wàllu bi lu ngeen jëflante lu mu wax lu mu def waaw kay man li ñu jëflante ak man wala jëmmam et cetera sëñ Saliou Mbacke laa gént mm-hmm. ma mbooloo mu bëri nekk mm-hmm. ñëw dugg mm-hmm. sukk ci ay tànkam mu yëkkati gerte kemb moom laa ko fekk muy lekk mu may ma ci gerte kemb bi na ma lekkal mu ne ma ñun ñi nekk ci bunt bi këyit yu weex yu ñu yor demal nga récupérer ma yëpp nga andi ma dem récupérer këyit yu weex yëpp ñoo andil ko toog ci wetam di lekk gerte kenn suñu Saliou Mbacke. temps bi ngay gént loolu booba yaa ngi xaw a nekk ci ay dëgër dëgër temps yaa ngi xaw am ay jafe-jafe yu ndaw ay ay dëgër dëgër yu ndaw yoo nekk di ko résoudre. Hmm. gis gi nga ko gis ci gént mu jox la gerte gi ni la yéyal. yéy oh, ko mooy dëgër dëgër ya moom la dindi. Hmm. gàllankoor yi la doon pro la doon bloqué moom la la teggil moom la la dindil li na la këyit yu weex yi ci nit ñi indil ma ko mooy yow sa bopp di nga jëf ci wàllam ci liggéeyam dara di nga hmm. dem ba di nga am looy jëf ci nit ñi luy dellu ci moom xëy mooy kayit yi hmm. nga récupéré ci nit ñi indi ko di nga am looy jëf ci diine wala ci tariixa bi ci yoonu murit wala ci àddina rek ci lu mën a doon loo xam ne luy dellu ci lu mu bëgg dem naa toj xel kom waaw ma ni professeur toj xel kom dem naa xel kom tool ya bay ma ni barke alxuraan léegi anda ak kader demal demal demal demal parce ñett laa ko bëgg a enchaîner ma ni nga tëj waaw ma tëj nga ni bëri mat waxuma ne man la ba tey de waaye du yow sama mat ma ni man la de nga ni bërët ay saay-saay mhm. di la dàq di la dàq di la dàq di la dàq di la ay bandi agresseur ay bandi la bëgg a rey mhm. nga nga daw bi nga dawee ñu ubbi la benn bunt da nga ñëw jub buntu bi mu ubbeeku nga daal di daw daw ci benn suufu beñ bu rafet a rafet a rafet a rafet mhm. mais ñoom ñi ngi lay bëgg a dàq jàpp bi ñu demee ba lay bëgg a dàq di la jàpp nga plongé yow ci suuf si suuf si mëdd la muur la hmm. Hmm. d'accord hmm. ñoom ñu taxaw xool gisatuñ la mais yow bi nga génnee ci suuf da ngaa yem ci sëriñ Babacar si yam ci sëriñ Saaliwu Mbakke ñu yëkkati benn ay grain yu verte yu mel ni lentille lentille jox la ko nga ni maam. ma lekk. waaw wala ma sangoo. ñu ne la boo lekkee baax na boo sangoo. baax na nga ma gént bi. Eh, man waxuma. nga daan yow loola ni maa ko gént. man dañ may envoyé ay ay la may liir. bii waxoon nga ma ko njool. déedéet déedéet waxuma la waxuma la <laughs> waxuma la. ki gént loolu. waaw daa am ko ko gént waaw jamono bi muy gént loolu waaw soit amoon na ay crainte yu mu yu fitam dalul woon waaw wàllu boppam waaw ci ñu koy liggéey mm. wàllu seytaane mm. wàllu rab fekk na jamono boobu fitam xaw na ci yëngu tuuti jekk na ak dal waaw effectivement li mu gént mu koy dàq mën na nekk benn peur imaginaire waaw maanaam crainte yu mu am yoo xam ne c'est faux mu nga gént dara di wala lu mu war a affronté ñemewu ko affronté mu koy daw loolu dina tax nga gént ñu lay dàq mais bu fekkee ne yooyu dañ ko dàq seytaane la yu ko dàq ba mu daw ba plongé ci biir suuf si dugg ci biir suuf si mooy am na kaaraange waaw am na protection bu dëgër am na ndimbalu yàlla mooy ñaar nit yàlla yi nga gis noonu waaw mhm. ni nga tax nga muur moo tax ñoom mënatuñ la gis maanaam ñi la doon fexeel ay seytaane la ay noon yu lay xeex mënatuñ la gis mooy mënatuñ ci yow dara ñu xamuñ sax fu ñu jaar pour def la dara waaw ñooñu nag ñoo la protégé ñoo la nooyalal suuf si ba nga dugg ci biir nuuru xam nga nit munoo daw naturellement suufu peñ bu rafet waaw nooy mu ngoog foofu tawféex la waaw dafa mel ni suuf géej. voilà taw féex la comme suufu géej waaw comme suufu géej la mel suuf bu brillé bu rafet. bu bu kii la. boo dawee ba dugg ci mooy après da am taw féex ginnaaw bi nga jógee ci ay fitna. waaw instant boobu jóge nga ci ay fitna. ñëw ci taw féex. grain yi. waa waaw léegi nag ni nga nuuroo ñoom ñoo la protégé. waaw wala bul yàkkamti. léegi ni nga nuqee nag jóg taxaw gis leen ñoom ñaar. grain yooyu ñuy jox mooy sa kaaraange mais mooy dindi ci feebar bu fekkoon da ngaa tawat. Hmm. mooy nekk tamit li lay wat li ba kenn du la mën a dar waa léegi gént ci suufu beñ bu weex tàll mel ni perkaal di ci dox ba ci yàgg yéeg ci kaw fas rek fas wa naaw ak yow loolu lan la loolu lu baax ah man géntu ma ko damay laaj rek ay la yu ñu lay envoyé waaw ah? fas saa lii bi nga ko géntee yàgg na de ah, ko professeur dañ ma koy envoyé bi yaa ko gént daa yàgg bi ko géntee bàyyi ah? yàgg bi nga ko bi yaa ko gént bi nga ko géntee yàgg na ku la ko wax non yaa ko gént ku la wax moo ko yaa ko gént fas bu weex tàll la gis nga bi nga ñëwee. waaw yëg ci. Hmm. fas boobu naaw ak yow. waaw ndoona la yëkkati hmm. mm-hmm. ko boo am ci àddina la. yëkkati ko boo am ci àddina ñëpp xam la ci la kaaraange la ci yow. alaaji ñëwal loolu xam nga ko bu baax xam nga ko bu ah. baax. kii moom nga ne <laughs> waaw ñett mm-hmm. bi yàpp la génn. gént mm-hmm. ci lal bi matt baax ci kaw lal bi. waaw. Hmm, gént na yàpp bu ñorul. waaw gént gént na tamit chaque semaine mu gént nit ku dee. ah de kii yow la benn nit. benn la. chaque semaine mu gént nit ku dee. chaque semaine dina gént nit ku dee. waa kii moom lu mu. benn nit moo ko gént kii <laughs> xam. xam nga nit xam nga yen a lancé message ne gént la ñuy firi bi di. waaw xam nga nit ko xam naa ko. bu ko tudd de. bu ko tudd de. mais mooy kii. kan ah! kan oh! ah bu ko wax de. te hmm. <laughs> xam ngeen eh. la ah, dimbali ma ngir yàlla mais démb kii. Eh, ah ok waaw baax. ñett yu mu gént doy waar de. non non kii moom maa wax ne moom nii la moom. gént na yàpp bu ñorul. ak ay mat man xam nit ku dee. waaw loolu chaque semaine mu gént nit ku dee. waaw loolu dara ça dépend ci nit ku dee ki ni mu ko nu mu demee. Mhm. xam nga gént du kenn du ko nettalee noonu. waaw kay damaa gént Dakar lu muy firi. <laughs> damaa gént Mbuur Dakar kay saf rek. voilà loolu nga ne damaa gént yi ñu teg ko ci ngonnal. yooyu lan la dafay dépendre ci yooyu gën a développé. waaw ah, damaa gént diw diw ku faatu la. waaw waaye damaa gént ko mu dellu si ci kër gi wala mu wax ak man lii wala mu def nii wala mu def naa ci ngay mën a expliquer gént bi lan daa def ne chaque semaine dina gént nit ku dee loolu du dara moom muy gént nit ku dee firiwul si moom dara yàpp bi au contraire relation la bu mu am ak ñi denc ñi wan ginnaaw peut-être dafa bëri lu muy ñaanal ñu génn àddina ah d'accord moom dafa bëri mën na nekk ah, waaw non dafa bëri lu mu leen ñaanal parce que waaw borom kurus la yàpp bi yàpp bi non non loolu moom bi nag amul mën na nekk loolu moom dafa bëri lu muy ñaanal ñu dee nee na ñooñu muy gis bu fekkee daf leen gis ci melokaan bu rafet mooy ñooñu yi ngi am mbégte ci ñu koy yëg ci concert et surtout tamit ñooñu ña nga ca taw feex ña nga ca xéewal loolu lay représenté bu la kenn invité yeneen télé yi nag fii nga bokk fii nga ki ki gën yàpp bu ñorul moom la ba tey la waaw yàpp nag la ciy joué mais bu fekkee dafa gis dañ koy daggate dañ ko doon dagg waaw très bien koy daggate mooy ay wax la yu am ci diggante ay nit ay wax matt nag ay matt ay soucis yu mu am na si biir néegam matt baaxul man kay matt moom. <laughs> ku nekk yaa xam sa matt moom sa matt ah, lal ah. ku ne yaa xam sa matt lal. non professeur professeur ma ñëw professeur man man man bi may tëjee. man bi may tëjee man professeur damay njëkk a laaj bokkul sax si affaire gént yi ba dama koy laaj ba fa doog wax li ma ko gént man la. Hmm. dëmm. ah reconnaître nañ ko ci l'islam. jaxatu wala reconnaître ko ci l'islam dëmm. dégg naa foo ko tudd am na kuñ fa dëmm amul ah amul. léegi man xam nga dëmm amul nga wax. dama amul. ah thème bi di ñëw loolu la. man de li ma génte professeur. tey booy jàpp Cheikh man dañuy dañuy gasté ci dëmb de. di nga dëmb ci laa nekk alxuraan professeur li ah, ñu bëri. waaye ma man ñu bëri ñu ngi leen di tam yàq. waaye léegi njool njool si Sénégal sama diggante ma gént ma. ma feebar man. waaw dama feebar. waaw si buru. waaw li ma yàgg na trop. Mm. man maa si buru. Mm. ba mënuma dox. Mm. ñu yëkkati ma yóbbu ma kër Paa Diop ñun ñëpp dëkk Jaxaaw xam nañ Paa Diop. yaa ngi dégg mm. bu la yooyu daan dal ñu ne ay seytaane la topp ak ay dëmm mm. ci paa jub lañ lay yóbbu wala kayta waaw mm. boo ñu demee ci paa mu sang ma foofu këram benn garab goo xam ne xeetu xaso gu mu xaso ba léegi xet gaa ngi may santi paa jub na la mere de génn àdduna garab ah, ah. ndeysaan yaa ngi dégg wallaahi azim ba pare mu ne ma tey ci guddi waaw di nga ñi la jàpp mu ne ma ñi la jàpp barke alxuraan laa waat Hmm. mu ne ma ñu la jàpp. gént nga leen booy. mag la. Hmm. boo xam ne dafa gumba. Hmm. ñaari doomam yu góor. man la ma paa mu ne ma mag mu gumba. ak ñaari doomam yu góor. waaw ñoo la jàpp te di ngeen gént tey. waaw barke alxuraan. ma tëdd guddi nelaw. ma gént. ñun ma doon wax. waaw bu leen tudd de. may fubal. ñuy fubal ci mbedd. suñu mooy suñu fubal koñ petit yi doon def. waaw ko ñoom Mbaye Diaw petit yi foofu noonu. waaw la ñoom fubal petit ci biir gént gi bal bi dugg ci kër gi waaw ma tëb di ko jëli di jëli bal bi maire hmm. bi dàq ma hmm. te maire bi dafa gudd waaw ñaari doom yu góor yi tëye paaka hmm. kenn ki dàq ma ci bunt bi delluwaat kenn ki dàq ba ci biti jam nañ la ko ci biir gént gi maa ngi ñëw rek ci biir gént gi gis nga dama lax terrain bi doon fubalee quoi ñun dama lax terrain bi doon fubalee mooy terrain bi ak waaw bul wax koñ bul joxe seen voilà voilà ma daw kenn ki dàqe ma ak paaka ma daw ba jàdd bu ci koñu copain boobu ma la wax man dama jàdd yéeg ci kaw miir bi hmm. pour moom bu jàddee romb ma hmm. ci gént gi hmm. ma jàdd rek yéeg ci kaw miir bi Waly sama grand frère Waly Ndiaye sama mag ma bokkoon ndey ak baay moo ne ma Cheikh ma ne ko naam mu sànni ma paaka ci gént gi Waly sànni ma paaka ma téye paaka ci nampatal ba nga ko waroon jam dama koo jam barki alxuraan grand kooku dafa jàdd ci digg bopp dafa jàdd donc xamatuma fu ma ko jam <laughs> mais dafa jàdd rek ma wàcc ci kaw jam ba ma xëyee suba billaahi man maa ne sama yaay mère Fatou Ndiaye Aba ne ko damaa xiif dafa la ma ndékki pare gu ma de loolu gënt naa ko pare mm. mais ba ma xëyee suba mm. yaa ngi si dëgg bi ma sangu ba mm. set sangu ba set suur xam nga boo sibiroo ba ci ngooñ may doxantu yoonu Saint-Jean de Dieubi waaw ki ma gént ñu war a daje nii mu jàdd ma topp ko di saaga ndey ba seen buntu kër tontuwuma man lii maa ko gént. waaw léegi professeur loolu dañoo war a daje ngi jógee yoonu Saint-Jean moom mi ngi jógee yoonu Saint-Jean man maa ngi jógee yoonu jàkk jàkk ay sec. ñu war a daje ci intersect kër Pa Cheikh Ndiaye bi noonu. waaw la ñu waroon daje. Dembale Dembale la awee. Ah, ma topp ko ne du ko saaga ba seen buddu ko. bu la lekkoon lekk ay sañse bu am na wala amul man maa gént lii ko bu la lekkoon lekk jóg léegi wax ma ci loolu gis nga abaa nga may day na ma gént gi jeex na bu la lekkoon lekkool bu la lekkoon lekk ku sima kalawaat yu bëri. <laughs> léegi gis nga foofu noonu pardon balaa tàmbee jeex. ate waaw waaw ñëwal gaaw <coughs> njool ati ñëwal fii njool balaa tàmbee jeex ñëwal. mooy li gën a naqare expliqué ci àddina. dëmb la ah. waaw waaw. pour nga dindi ko ci bopp nit ñi mais kii nag bosam ku taxaw sax naan maa lekk diw sax gis naa ko te du. jël jëlal minutes. jeex na gën a garaaw. waaw jeex na préparé leen yéen waa gars yi ngeen ñëw. waaw xaaral ma ñëw c'est mooy li nga xam ni mooy manipulation yi seytaane def boobu mooy bi ci gën a extraordinaire. moo ci gën a garaaw moo ci gën a yàgg. moo ci gën a naqaree dindi parce que lépp seytaane ah! ki nga gis ñu tam ko dem. Mhm. moom ci boppam ay raflaam ay seytaane ko topp. Mhm. boo leen seetloo da gis ni seen dundul barewuñu ay mbokk kenn barewul lu leen di fréquenté waaw dañ leen di tooñ amuñu koom amuñu koom-koom amuñu koom-koom seytaane da leen di isolé mhm. ami boroomi rab lañu ñoom ci seen bopp rab yi ñu am gis ma wax benn affaire seytaane mooy def mooy dem feebar benn xale fee roof ko feebar. waaw xale bi tëdd feebar. waaw xale bi naan diw bàyyi ma. diw bàyyi ma di délire. paludisme sax sibiru da koy def seen waa kër jël ay yet dem ci diw moom ni ko sunu doom bu deewee rek ñu kii la. seytaane bi bañ bàyyi xale bi ñu dellu si rek fekk xale bi wér ñu ni ah xam nga loolu dañuy confirmer ni kon waa ji dëmmul. kon dëmm amul. fekk c'est amul c'est pas vrai. déglu leen ni professeur nit buy lekk nit nit buy lekk soit nit ki dafa wérul dafa dof waaw moom lay doon. Mm. wala mu nekk ñoo xamante ni seen culte la. Mm. waaye nit kuy soppaliku gudd nekk ngelaw nekk tan dem sulli benn waaye lekk ko ñëwaat yooyu amul. dem mu amul. Mm-hmm. nit mu am dañ lay wax nag histoire nan la yor yonent yàlla Daawuda ba muy toppi jaaluuta ba ñëwee ba ca dex ga ñu ne bu kenn naan ña ca naan bi ñu siggee dañoo commencé di gis ñoo ñooy dëmm yi mm-hmm. non c'est pas vrai. mais kon kon loolu amul non tous les les les histoires mais les histoires qu'on rencontre rencontre raconté ci àddina bi. parce que am na ci man bu ma dégg boo xam ni dañ ñi maire bi wujj a ko may doom pour ñu jàpp ko doom bi bi mu demee ba mag wujj bi dafa jóg ci euh, maire boobu dafa jóg ci lal day nekkate day jóg ci lal bi guddi di dem. Hmm. benn bis nag mu jóg ñu ni ko bu jógatee rek dëpp ko mu dëpp ko maire bi bi mu ñibbisee mënul dugg ci biir néeg bi. ñu ne wu jëm daanaa ci man façon yu nekk lu nekk dégg nañ ko ci façon bu nekk tan mi ñëw ak waa ji bàyyi fa der bi dem ak waaw ko kon kon jëfru mais ki ko def jinne la seytaane la kaay ma wax la benn affaire dafa am seytaane bu ñëwee dugg ma man waaw man daf may nelawal waaw léegi moom mooy téye sama jëmm di wax ci sama làmmiñ xam nga di nga gis ku seytaane dugg waaw muy làkk sax langue bu mu déggu waaw mm-hmm. ça veut dire que du moom dëgg la waaw ça veut dire que ni kii wax du moom benn jinne bi nekk ci moom la waaw wala muy expliquer léegi nag jinne boobu hmm. xam na ni diw dafa accidenté woon ci oto dee waaw léegi jinne bi day wax ci sama tur man waaw daan ni diw maa ko koj ci tali bi fële maa ko rey maa ko lekk diw ba mu amee examen laa ko lekk diw ba mu amee examen laa ko lekk diw ba mu ca tool yi laa ko fekk hmm. mais loolu kenn du ko mën a weddi ah. waaye boo seetloo lii ma lay wax toujours bu paree boo xëy ba eggal day daanu nelaw Mhm. bu yeewoo day jóg laaj waaw lan laay def fii waaw amul conscience ni doon na wax la li ça veut dire que dañu la yet taal ko nag c'est erreur mais loolu la yàgg def ça veut dire que du moom loolu la seytaane di manipuler nit ñi ñuy am bàkkaar éternellement waaye tamit ñu yàq ci aw xeet ba àdduna tukki wallaay ñi leen ay dëmmu ngeen kon dëmm amul amul jinne la lépp jinne la la ma gént lan la man manipulation seytaane la ay ay rabal a jàpp ay jinne jinne nag mën nañu am mën nañu am rapport ak ñooñu Mm-hmm. rab yi la jàppoon jinne yi la jàppoon mm-hmm. mën nañu am rapport jinne yi la gis mën nañoo seq bokk ci ñooñu famille jinne ñooñu waaw léegi nag góor gi nga dem mu la moom bu leen di faj ñooñu lay gis parce que jinne bi seytaane bi melokaanu ñooñu la koy indil ndax dafa bokk ci ñooñu kon góor gi jinne la parce que góor wax naan moom moom loolu la woon waaw man kay affaire bi kay nii la woon da doon wax naan man nama yàlla baal te jéggal na ma yàlla baal te jéggal ma yàlla sàkk na ku ne li mu sàkk du ma ko dii nget du ma ci wax ka Dieu m'en garde yàlla na ma yàlla jéggal mais dama ni comment se fait-il que yàlla xool benn xeet rek ni leen yéen ay lekkkat yi nit yéen. dëgg la neexul man fu waaw foofu après bu ma jaaxal loolu la ba pare waaw dañ leen di ba pare bëgg xeetam googu mu sàkk ak li bëggee nit xeet googu ñu leen di du doigt ci lekk nit man loolu jaaxaloon na ma de coow mosoo dox ba fekk ñu ne jàpp nañ dëm ya fekk na leen ñuy supp benn waay waaw di seeñu wala ñu ngay seeñu wala loxo yaa ak yaa ngi ci biir ci la mosoo ko gis waaw lay wax ji yëpp doo mu dee après ñu dem ñu ni lañ koo fattoon rek. nit ki mën na dee naturellement seytaane utiliser ko. kon mën na ko fàtti kon mën na ko fatt ñu suul ko. mën na ko non seytaane mu du re yàllaay rey mais nit bi bu deewee nit ku feebar ni dee. waaw seytaane man seytaane su ma ñëwee mën naa ko utiliser pour yàq diggante ñaan ñi ma dem ci xale bi ñu dem ci benn sëriñ mu feeñal ni. Hmm. diw moo ko jàpp. fekk jinne boo seetloo ki lay wax loolu dafay faje faju cosaan. ay ay layu lay jël ak ay njaq ak ay tuur moom lay yore li ci ëpp. allahu akbar. kooku moo lay indil yooyu. wax la ni la. rap la mais léegi la ñuy def lii ba sayta ba Sénégalais yi xam ñu bàyyi ñi ñi ñuy tooñ. am na ñu yàq seen àddina yu bëree bëree ah. bëri. ñu bëri yàq nañ ci seen àddina. évidemment te ñoom dañuy wax ni bëgguñu jaxatu duñu lekk lekk jaxatu. Ah? jox ma 16 bi yow. waaw xanaa jinne bañ jaxatu wala sama xarit bi toog nii sama waaye ñoom nit ma tëjee ko à suivre la waaw à suivre la mais naka naa ko tuddee malheureusement ba Ndiaga Ndour nekk fi bu fi Ndiaga Ndour nekkoon fi danaan ñu xanaa du ngeen ko tuddee du ngeen ko tuddee euh, euh, euh, tam dëmm. déedéet déedéet déedéet ah seytaan rek loolu Sénégal dama jëli ma seytaan mën ngeen tam bii di ñëw daal seytaane la waxtaane année. Ah. dëmm dafa fort. ah andil ko micro en attendant bëri yàq nañ leen ko micro en attendant est-ce que xam nga am na ñu ci tuxu jugee réew jugee dëkk dem dëkk beneen dëkk. Ah, nit nit da bëgg a nit sëy. ñu yàq ko ne kii bu ko dugg ay mange mange mm-hmm. la. nga bàyyi na ko bandaf na ko bandaf. naa la nga bàyyi. xam nga xam nga li a la bëgg wax njool. waaw. ñun suñu émission bi xam la yu objectif waaw dimbali ñun ñuy seetaan waaw ñu sentir ci seen bopp bari na de te lii lii ñu mujjee ni moo tax toujours ma tax ma sànq may ñaan cinq minutes bu ñu ko wax waaw gis nga dem ba fin bi amaat beneen thème tey bu ko doon wax dañ koy wax waxi dëmm moom moo waxal ñu lan moo tax mu ne dëmm amul <coughs> pour sénégalais yi lu ñuy gis ñu xam ne du dëmm c'est important ñu xam ko bàyyi tooñ ji voilà bien sûr bàyyi tooñ bi seytaane waaw mooy dugg ci nit ñi di leen jaxase mooy dugg ci ñin ñi di leen léegi nag façon bu nekk dana ko def dëgg la min charril waswasil xanaas ah. hmm. xanaas waaw moom wiisu ay jinne la ay jinne lañu bisu doodi naas fi nal jinnati wa naas minal jinnati wa naas xolon ausur bi naas maliki naas illaahi naas min charri waswasil xanaas wis wisu xanaa mooy jinne bisu doodi naas minal jinnati wa naas xanaa mooy caatu jinne ay jinne la man mas naa foog benn xale nii solul yére ma dugg si benn kër kër googu dañ leen di tooñ mais man xam naa ne yooyu amul lu ma neex laa fay def seen seen yaay bi mu gisee xale bi dafa xulli bët yi ba mu sës ni ma jox xaaral ma jox ko seen nga sàng ko parce que dafa tiit. seen yaay seen yaay. parce que man xam naa ne tax mu tiit. li tax parce que wax loolu bu fi xale bi génnoon dara fakkastalu ko ko ci kër ñàngam yàlla demoon. boobu dafa tiit noonu ndeysaan du dara man xam naa du dara. après nga ni ko lan. man ko non garaawul moom mu indee benn sër man la mës ko ci xale bi dem jox ko yaayam. bi ma ko joxee yaayam ba pare ni ko kër kër sàngam nekkoon ñoom ñoo sër bi rek mu yuuxu sama doom ci kër moo tax Ndiaye waaw lekk sax kaay lekk gu bari bu ko def. Eh, boo nee nit kaay lekk mun la suunaa rek bàyyi. xaw a coow xañ ñu ne. waaw waaw waaw doon forcé. la ko amul nit oh, ku ma ne ko suul la waaw ma ne ko suul la mu ne ma damay lekk boo demee ci tubaab bi ah, ba lekk ko rek xam nga boo demee ci tubaab bi moom la ñuy tuddee vampire rek dëmb la la ñuy tuddee vampire ah waaw boo demee tubaab bi moom la ñuy tuddee vampire dañu ah, la seytaan la mais ñoom ñu koy ah, am na mais bible am na nit kuy naan deret nit waaw amul fenn gumba dafay waaru yooyu yëpp ay illusion la ay histoire de vieille professeur yow dinaa am retour yoo xam di nga gis ñu ne ma invité ma ma won ko ne muy wax amul am na non je sais <laughs> <laughs> je yow ju la jinne di manipuler doo defal attention de yow yi ngay wax ni am na ñu bëri ñoo xam ne neexu leen de gën a gëmuñu mais évidemment du leen neex de ah je n'ai rien à dire da nga takk ay ndombaak yooyu du ma takk dara ah attention ah. waaw d' accord kon gars yi ah, gars yi waaw moom ah? moom moom business moom business gars yi ah moom business ah muy restaurant traiteur hmm. ah professeur <laughs> da nga fee ñëw daal ak say xéew waaw doo ci boole woon di xelli ndax dañuy tëj waaw bi dina baax waaw dangaa ñëw ñëw professeur ah bu ma ko joxee laay bu ma ko joxee kàddu gi ci laay kii professeur dafa ñëw ñëw dafa ñëw ñëw waaw sa première émission waaw am ku ñëw àndal ñu ay pizza ay nangam waaw beneen bi sa deuxième émission moom business mii. indi fi ah muy chef awakan bi andil ñu cere ak mbuum la ci ay wallaay wallaay cere ak mbuum bu neex neex boo xam ni. waaw waaw daay. ah billaay wallaay taalaay ba sànq rek maa ngi xoolaat fi nga ma ko defaloo. ay kuddu or mais man gëj naa koo lekk mais keroog dama ko lekk ba mu jeex tàkk. ndax neex bu mu def pare dama ko digérer. ba pare may leen ay kuddu or. waaw may ñu ay kuddu or man nag ma ci. waaw kuddu yi dama kaa fàtte tey tey moom business. ah chef awakan ah lan nga andi nga ne yow waaw bool bi bu ko teg ci suuf. waay kii bi laa ko ci kii bi kii bi laa ko ah, ci gerte gi am na ko ko wayoon. Michoui. non Michoua. Michoua kooku kii la woon. mi euh, kii la woon Monique Seka. Monique Seka moo woon Michoua mu ko woyee Michoua. yow lii waaw. tey Michoua jëlal micro bi nga dégg nga wax ñu lu ñu andi lan la. waaw ah, tiim ko tiim ko. kii ah, non non kii dina ko kii. waaw euh, kii nga ci ñëwal. tey Michoui laa leen indil bon ça va euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam maa leen nuyu bu baax. di nuyu proviseur bu baax. Mm. suñu professeur anti stress bi. waaw waaw tey Sénégal de macha allah waaw léegi Sénégal soxla nañ ko bu baax. Hmm. yéen ñëpp maa leen nuyu bu baax. Hmm, hmm, bon tey michu yi laa leen indil nag. defal leen si ay euh, crudités variées. crudités variées. waaw pour ngeen mën a reesal. waaw waaw waaw ngeen mën a lekk rees ci jàmm incha allah. puisqu'il mm. fait waaw léegi léegi léegi lii lii lii nii yëpp ci kii bi la bokk. ci ci ci ci restaurant traiteur bi la. Mhm. maanaam ku commandé ay miches yu sax yow danga nga koo di nga ko defal. dinaa ko ko defal. fàttali leen numéro téléphone bi. 77. ah 666 58 67. 77 666 58 67. waaw cité CPI Grand Yoff. numéro 53. non fii cité CPI Grand Yoff lañ ci bind de numéro 53 Dakar Sénégal. waaw lu waay commandé ci xeetu lekk rek yow da nga koy def. anniversaire. anniversaire séminaire euh, mariage ngénte on fait tout. damay waaj takk jabar. waaw loolu dinañu neex. ku jékki-jékki am gan rek wala da nga koy livré. waaw ku ñu mais nag euh, li ñu gën a favoriser mooy commande suñu liggéey ci loolu la. parce que plat yi en général bu ñu koy defar euh, dañuy dañuy avant 24 heures dañuy jël commande yi. balaa réalisation. ñooñu la ñuy gën a favoriser en fait. moytu moytu leen commande gan nga dina ñëwatuma de. lii dibi dibi yàpp la. non non non lii michu la. dafa ba pare doore. dañ ciy def ay maïs def ci ay ay ay. ay moom la tuddee xaw ma lan ci. ah li mboq la li mboq la nii. on a mis baax na. waaw mooy maïs dafa baax mboq la. mboq la lu vert li lan la. persil la lu lu mauve li betterave chou rouge la chou rouge la du betterave chou rouge la lu moom du am betterave ak carotte chou rouge la ak concombre ah, bii du am betterave ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu taf mayonnaise bi ci el rek la nga ne ñu taf mayonnaise ça dépend du goût de la personne rek ah mais mën naa def mën naa ànd ak betterave bien sûr ok mën naa ànd ak euh, betterave euh, Ndiaye waaw loolu tax ma ma ma ma sopp ko waaw hmm. gis ba muy ñëw. Ah. mënoon a takk ay oo rek. ay kii waaw di jaay jombaña mais li muy liggéey li ma saa neex naan fas du rus a gàddu. ngooñam ngooñam mm-hmm. moom la def nii tey. Mm-hmm. waaw lii complexé woo. ras du sa a gàddu ngooñam. waaw donc jaaroo si gaal yi dem Nicaragua. une fois 77 666 58 67 cité CPI Grand Yoff Dakar Sénégal chef Awa responsable moom. Sey Aba Awa jërëjëf. merci beaucoup sama gars yi kon ñu tàggoo. rapidement Aba may ñu deux minutes te ñu tàggoo deux minutes. deux minutes ah ñàkk. cee Karim ah saa. waaw maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. waaw maa ngi tàggu ñëpp. Mhm. di leen wax ba beneen yoon Ndiaga Issa le grand batteur. Hmm. maa ngi lay lan lay battre. batteur batteur la. Ah, waaw jëkkatu maa ngi lay maa ngi lay jaale sa mag jooju dinaa fa ñëw jaale si la. incha allahu akbar bi hmm. waaw Ndiaga Issa waaye di nuyu ñëpp di ziar ñëpp Ibra Kabe borom salaam oto. Mhm. ah di nuyu waa Kipala Kipala coiffure nga xam ni démb rek fala woto wotoo defee fa pédicure pédicure fa laa ko defee manucure ak soin de visage yëpp fa laa ko defee démb ah, ah, di nuyu Kipala sañse tamit ah Samba Kende Bonavita waaw waaw lay nuyu ci sañse yi yow mi ngi Barcelone mi ngi lay nuyu waaw ah, Barcelone ak Chine incha sëñ Fallou Rahman borom géejawaay borom ñaanu kun ak Bousso nuyu naa la mhm. ah ak ak emploi moo ci def de l' emploi ah, koy tàggu Modou Fall mhm. maa ngi lay nuyuwaat di la sargalaat ak sa soxna denga nga maam ah. surtout sëñ Issa Diène borom jënn waaw waaw soxna may jenn mooy sama xarit man nag moom du sama xarit mooy soxna may mooy sama xarit yow ngaa muus fi nga jaar a baax ñëw daa mel ni ba bëgg a jot ci Macky Sall waaye di nuyu waa Sénégal yëpp ah. waaw di ñaan yàlla fii ak ñuy àgg ca élection présidentielle jàmm rek incha allah ak ñu ko weesu ak lu ko weesu weesu ko weesu war ko yàlla na yàlla lal ci Sénégal gi jàmm. sanse euh, sanse bi nag xam nga présenté naa ko ba tey kii Momo moo ko ñaw Momo mi ngi dëkk mi ngi dëkk. ah da ngaa redoublé. waaw damaa redoublé. waaw waaw Momo Momo moo ko ñaw Momo. mi ngi dëkk man de ki ma sansal du ko tudd ndax damaa fay man. Ah. alaaji waaw damaa fay. waaw Momo nga ne Momo. waaw Momo euh, euh, ma nga dëkk yëmbal. yëmbal moom laa doon wax ni turki la jàngee lii. Ah. moomoo. waaw waaw xam ngeen ko sax. ngeen ko yoroo numéro am. ankay xaar avant avant avant di kii. waaw ma génn numéro Momo Couture. alaaji demal en attendant mu génn ko. ah mi ngi nii demal demal Momo Momo Couture yëmbal. mi ngi nii gis nga maa ngi yoon numéro am. <coughs> mooy 77. Euh, waaw 324. waaw 79 92. Momo maa ngi lay nuyu bu baax. gën na ñoo gisee nag 324 79 92. na ñoo gisee nag waaye gis nga. daa war a ñëwaat ñun kóllële rek. voilà professeur maa ngi lay nuyu tamit ah, super maa ngi lay nuyu ah, jaajëf hmm. Ndiaye maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di féliciter suñu professeur bi nga xam ne moom la ñuy baaxoo ñun waa Ngonal hmm. parce que question buñ ko passe amaat nañu retour ba amaat plus mooy Messi bi nga ko tuddee waaw di wax waa Sénégal ne lu fi jub waaw euh, du suñu euh, ndimbal suñu borom la hmm. waaw lu fi dëng si ñun la waaw di wax nag euh, ñu ngi jëm ci combat Boy jaxaw booy Jaxaaw bi di gërëmaat ki nga xamante mooy Habib Niang ak ab Ablaye Sylla ak Bafou nit fa nga nekk da ngay jàppale waa gox ba dëgg la kon autorité yi booy jaxaaw mi ngi jëm ci làmb tàllal nañ loxo le vingt cinq ñëw na open press bi def na ko ba pare waaw ay baabooy ñëpp ñëw vingt cinq bii la bii bii bii di ñëw mhm. gërëm na nag waa ngoonal gis na ne yéen waa jaxaaw ngeen ah, waa Thiès ngeen ñu mën ko loolu moo ñu war mais seen kër ak suñu kër ñoo takkaloo benn la nii ñoo takkaloo indi ndam li teg ko fii kenn du ko daal man nag ki ma solol yaayu bamba la mais damaa fay ah yaay seex du ma wax tailleur bi waaw yaay bamba moo la ñëwal waaw yaay bamba la yaay bamba waaw moom moomu tëdd yaay seex wala yaay bamba yaay seex yaay bamba waaw mooy yaay bamba ah yaay yaay seex yeeg bamba nga bàyyi laat laa sol tey del wax yaay seex yeeg bamba yaay seex yeeg bamba waaw <laughs> di gërëm ñëpp di sant waaw déet ñaw bi da nga koo fay damaa fay du ma tudd bul tudd kenn kon waaw déedéet déedéet déedéet non non bul ah, tudd j'ai payé dafa fay ak man moo tax man moo tax man maa ngi nii xam nga sansé naa waaye gëroo ma tudd ma ko parce que maa fay ah. professeur tey lom ñu tëj tàngul fu la neex fay leen professeur tëj dañoo tàng xol yóbbu wooñu fële moo tax di remercier waat ah, ñëpp rek ah, di leen gërëm bu baax jo Sanex mhm. mhm. El Hadj professeur mhm. vraiment mbégte la di seq ngeen jotaay fierté la mbégte la contentement la si man bu mag vraiment di partager ak yéen ay plateau parce que dafay riche dafay bëri dafay bëri yu ciy génn trop trop te man dama bëgg question yi gën a complexe te da ngeen di poser question yu xat te loolu laa bëgg macha allah am na solo donc plaisir la si man di partager ak yéen encore une fois de plus di remercier ñuy suivre ñëpp ak ñuy commenter di wax lu nekk ak ñi jot ñëpp di ñu woo vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm tawfiq xewal asalaamaaleykum bii di ñëw thème ah, xam nga yóbbante yi dafa baax de non nañ tëb naa ñu tibb fu ne rek waaw ah, nu ngeen ko man daal biiru man daal ah. lu leen neex rek néegu sëy mosuñu ci waxtaan néegu sëy naaw wala soxor wala non soxor wax nañ ko wax nañ ci non néegu sëy du leen neex dëddale kon après ñu dina xel jàpp jàpp néegu sëy ci la dëddale sa waaw néegu sëy léegi nag xam nga lu ñuy def léegi waaw dinaa wax ak waa ji nu mu tudd euh, Jean Jean kii photo waaw Pape Jean. waaw mu def affiche. waaw ko defee après ñu waxtaan. def tem bi. naasu ko ci internet bi. xool ñuy validé waaw Instagram yeeg yooyu ñu xool bu Sénégalais yi gën a validé. ñu ne bii la Sénégalais. voilà gars dañ ciy yóbbante sax seen seen ay. questions waaw man ñi ma yóbbante ñi xam nga. kon jeex na kon boog jërë ngeen jëf ba mercredi incha allah rabbi seen émission ngonal merci beaucoup. Ndiaye attaaya validé.